contribuição da nossa jere ngeen jëf ci taamu ak tànn bi ngeen tànn rajo itfa rajo itfa ànd ak yéen ci programme yu am solo moo xam ci wàllu diine la moo xam ci wàllu actualité la ak lépp luy soxal dund doomu aadama rajo itfa ànd ak yéen lépp luy askanu gambia wala mu soxal askanu sénégal te nekk ci biir amérique ak li ko wër di ngeen ànd ak rajo itfa ci programme yu am solo radio itfa di radio askan wi leeram ya fo xol fo fa bawan radio Itfa dal dama ni jàppal ma bi radio bul ko bàyyiti ba mukk radio Itfa radio askan wi ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب وانقل صلي على محمد rahmatullahi taala wa barakatuhu wasalaatu wasalaam ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala wa ashaabihi wa xulafaahi ajmain mbokk yu jullit yi ñoo leen di nuyu na gën a teddee di leen ziyaar na mu gën a selle fu ngeen mënti nekk ci àdduna bi ànd ak plateforme yi moo xam mooy ci Facebook bi moo xam mooy ci YouTube bi wala moo xam mooy ci Zoom bi ñoo nga ànd ak yéen di ziar sang bi Cheikh sid Ahmed si bu suñu baay Seyd Mohamed Habib si bu suñu maam ji tedd ja Cheikh Hadj si radiallahu taala anhuma mbokk yi buñ ko nuyoo ziar ko nak noonu lañ ci boolewaale kilifa diine yi fépp fu ñu mënti nekk ci senegal wala ci Gambie naka noonu ziaram moom sang bi moo yóbbaale ziaru ëtt yi nga xam ne yëpp mo nekk ci biir kër suñu sëriñ bu tedd bi Maolana Cheikh Ahmad Tijani moo xam muy ca Kaolack moo xam fu mu mënti nekk Sénégal ba ci sax ci Thiénaba wala fu mu mënti nekk ci këru diine rek ñoo nga àndandoo jox sang bi ñaari loxo di ko jox ziar bi moom tasal ñu ko ci biir Sénégal yëpp kon bokk mbokk yi ñoo ngi delluwaat di sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala bu baax a baax ci xéewal gi ñu defal ba ñu mën a àndaat tey ci studio Daarul Habib bi ànd ak yéen programme bu mag bi nga xam ni moom lay woowee xadaratu juma ñu feggoo ci ak suñu mbokk Cheikh na Ahmed Tidiane Seck Toronto Island Cheikh Ahmed Tidiane ñoo ngi lay nuyu di la ziar ci guddi وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته آه، سن بامن لي نيو دي لا زياري دي لا آه، بالو اخ دي لا مسو تشون آه، دي نيو سن سيدي احمد سي سونو مام ابيب سونو مام الحاج مالك رضي الله تعالى عنهما دي لين زياري دي كزياري بو باخ دي نانال يالا جام اك وير مومك ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi ànd ak ci euh, rajo ITFA Islamic Tijaniya Foundation euh, Rhode Island di nuyu mboolem yëpp leen ziare ñoom ñëpp leen ñaanal jàmm di ñaanal suñu njaboot ñëpp macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Pape salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Cheikh Ahmed Tidiane loolu du ñuy wax rek lu dul amin yàlla ko yàlla si borom subhanahu wa taala nangul ñu ko defal ko mbokku jullit yëpp. saare ko ci àddina bi li fi nekk di lore yàlla nañ ci yàlla musal. Euh, Cheikh Matiane ni nga ko xamee tey ci guddi àjjuma gi programme bu mag lu ñu am tey teggoo ci ak gan goo xam ne dañ koy bàyyi noonu lu ñuy wax bu mbokk yi kan moo fi tey mais ki ki ki nekk tey bu dugg see ànd ñun waxtaan wi kooku moom mën na toogal islam bi yëpp mën na toogal waa Kër Cheikh yëpp mën na toogal jullit yëpp wante ba la ñuy ci moom Cheikh dafa mel ni ci euh, ëttu ITFA bi fii am na ay programme yu fi am maanaam sëriñ bi am na noo xam ne daf ko toogee mbokk taalibe yi du ma ni rek ci biir États-Unis wax damay wax ci àdduna bi yëpp euh, Cheikh programme ITFA bi ndax euh, si sëriñ bi ndax moom dina jàngale téere yàlla suñu borom subhanahu wa taala ndax dina jàngale alquran macha allah euh, sëñ Pape jërëjëf kontaan nañ si laaj bi laaj bi am na solo mhm. donc comme ni nga ko laajee rek xam naa ni sëñ bi moom Euh, comme ni mu ñuy euh, teetee di ñu teg ci yoon bi ak di ñu gindi ak di ñu jàppale rek euh, bi ci jiitu nag mooy jàngale alxuraan bi nga xam ni mi ngi ànd ak ñun dika def ak ñun ak mbooloom yëpp ñi nga xam ne comme ni nga ko waxee rek ñi nekk fii ci Amérique ñi nekk ci Sénégal ñi nekk ci Europe ak ci Asie yëpp macha allah ñoo ngi loolu mooy focus number one bi li nga xam ne daal moo jiitu ci li nga xam ne moom lay Euh, yëngatu yi muy def euh, di ci ànd ak njaboot gi yëpp jàngal alxuraan dafa mel na moo si jiitu sëñ pap ah, alhamdulilah rabil alamin loolu kañ lay am ak fan lay amee waaw jàngale alxuraan bi nag euh, comme ni ñu amee tey ji xadaratul juma bi comme ni ñu koy waxee xadaratul juma si zoom bi fii nii ci internet bi foofu rek lañ koy amalee macha allah jàngal alxuraan bi ci mi am nag ci semaine bi dana am ñett bis ci semaine bi euh, bis bi si jiitu mooy euh, talaata si guddi euh, beneen bis bi di saturday muy muy samedi ci bëccëg bi ci topp muy muy sunday di dimanche ci bëccëg moom tamit ñetti fan yooyu daal sëñ Pape mooy ñetti fan yi nga xam ni incha allahu jàngale alxuraan bi dana am ci zoom bi ci sobe yàlla. waaw xam naa alhamdulilah loolu. jar na sant yàlla si borom subhanahu wa taala bu baax bu baax parce que dañuy wax ni sëriñu diine dafa waram daara alhamdulilah ba bi nga xamee ne kon ITFA am na daar sëriñ bi ci ñetti fan yoo xam ni moom ci boppam moom moo ñuy jàngale téere yàlla si borom subhanahu wa taala ginnaaw loolu ndax ITFA ameen am na yeneen programme ci biir semaine bi yu dul jàngale bi rek waaw am na yeneen programme ci biir semaine bi euh, wante euh, comme ni nga ko xamee rek ni nga ko laajee euh, maanaam am maana sax tontu bi matalewul woon mooy euh, ñetti fan yi maanaam ci la jàngale bi am. Euh, mhm. tal ban fan bi si njëkk bi moo doon talaata ci guddi. Euh, jàngale boobu mi ngi am en wolof sëriñ bi wolof la koy jàngale daara ji si wolof lay doon. boobu nag dafa mel ni ñi nga xam ne macha allah yàgg nañ si daara bi ñoo ngi ci am ay ay ay fan yu xaw a takk fi mu nekk nii pour bañ a ay at. donc ñoom ñoo ëpp ci jàngale boobu nga xam ne ñu ngi am si talaata si guddi diggante huit heures si guddi. ba dix heures si guddi heure New York euh, beneen bis di topp bis bi si topp muy Saturday bi Saturday bi nag euh, mi ngi am jàngale bi mi ngi am union si bëccëg euh, ba deux heures et demie si bëccëg boobu jàngale boobu nag en anglais la sëñ bi defee li waral tamit jàngale boobu ñu koy def mu koy defee en anglais dafa mel ni dafa mel ni dafa am sunu njaboot yi nga xam ne ñoo ngi fii juddoo fi yaroo fi te bu mel ni anglais bi moo gën a jàppandal pour ñoom donte dégg nañ sax wolof maa dafay mel anglais bi mooy gën a jàppandal pour ñoom ak ñi nga xam ne ñoo ngi ci réew mi te euh, du ñu wolof euh, bu ko defee anglais bi tamit gën a jàppandal pour ñoom bu defee sëñ bi di jàngale classe yooyu en anglais euh, beneen bi si fan bi ci topp bi tamit muy dimanche bu ñu jógee si samedi bi dem ci dimanche bi dimanche bi tamit diggante une heure si bëccëg ba trois heures si bëccëg heure New York mhm. donc boobu tamit mu dellu si jàngale bi nekkaat en wolof Euh, bo mu mel ni ñi nga xam ni yàgguñu trop ci daara ji comme ni jëkk ñi jëkk wax dinañ fi yàggee euh, bu ko defee ñooñu tamit euh, ñu bokk ñëw foofu ànd ak sëriñ bi tamit muy jàngale classe yooyu ci diggante une heure si bëccëg ba trois heures si bëccëg en wolof sëñ Pape ah alhamdulilah alamin kon ñett fan yooyu la ñuy jàng ñaari fan yi ci wolof benn fan bi ñoo ngi koy jàng ci anglais pour mbokk yi nga xam ne anglais moo gën a yomb ci ñoom incha allah dëgg la waaw sant yàlla bu baax kon si borom subhanahu wa taala ci loolu dama koy waxoon sànq rek ndaxte ñaar moom am na solo mooy jàng téere yàlla bi ba pare jàng ko ci koo xam ne njaboot Cheikh El Hadj la direct koo xéewal bu ñu yàlla suñu borom subhanahu wa taala defal wante dafa mel ni tamit am yeneen programme yoo xam ni mbokk taalibe ñoom am nañ ko ci biir daayira bi euh, ci biir semaine bi dëgg la dëgg pap sëñ Pape ci biir semaine bi gannaaw bu ñu génnee programme jàngale yooyu nga xam ne am ñetti fan yooyu ñu wax léegi. mu am nag yeneen ñaari programme yi nga ñoo ngi am ci semaine bi. Euh, mu am bisu alxames si guddi diggante 9h ci guddi ba 11h ak euh, comme tey jii bisu àjjuma si guddi diggante 9h ba 11h. Euh, programme mu alxames bi nag moom la ñuy wax programme social. ñu ko programme social rek dafa sunu dundin ak sunu. ay doxalin ci biir euh, réew mi ñu nekk wala ci àddina bi euh, mm-hmm. moom lañ ñu si jéem a indil ay leeral indil si ay borom xam-xam yi nga xam ni seen euh, xam-xam màcc na ci ay domaines yu nekk mu doon domaine éducation wala mu doon domaine santé wala mu doon domaine finance wala mu doon domaine commerce mu ci mën a doon rek ñu fexe ba am xamné am nañu ñi nga xam daañ leen am mu nekk si ñun wala ñi nga xam tim ñu si ñun mu ne si ñun rek moy ñi nga xam ni ñoo ngi ci xadara bi wala ci xadara yi wala ñi nga xam ni sax ñu ci xadara yi wante ñoo ngi dund ak ñun ci société bi ñu woo leen ñu ànd ak ñun ñu am ay thèmes yi nga xam ni ñoo leen koy proposé wala boog ñoom ñu indi ay thèmes yi nga xam ni ñoo ñu ko indil wala ñu xool li nga xam ni mooy actualité bi yooyu tamit ñu bokk ànd gëstu ko toog waxtaan ci indi thème yooyu ñu daal di ñëw proposé ñu ko waxtaan ci bu ko defee bu ñu si waxtaanee diggante euh, une heure de temps one hour. bu ko mhm. defee nag bu ñu paree ñu ñëw ànd ak ñoom nag indi ay laaj wala indi ay contribution ñoom tam ñu indi ay tontu bu ko defee daal jotaay yooyu en général noonu lay demee sëñ Pape bu ñu jógee si alxames bi nag ñëw si ajuma bi comme tey jii ajuma bi tamit euh, comme ni nga ko gisee rek dañuy ànd ak euh, suñu ay mbokk taalibe suñu ay mbokk oustaz suñu ay mbokk conférencier suñu ay mbokk waxtaankat yi nga xam ne ñoo xam ñoo ngi Amérique wala Sénégal wala Europe wala fu ñu mën nekk si àddina bi rek te ñu gis ne ñooñu euh, seen xam-xam sell na euh, euh, te leer na bu defee ñu ànd ak ñoom ñu ñëw indil ñu jox leen ay thème wala ñu indi ay thème rek comme beneen côté bële ñu indi ay thème wala ñu jox ay thème ñu ànd ak ñun waxtaan si buñ si waxtaanee tamit pare. Euh, mbooloo mi nga xam ne ñoo teew ak ñoom indi ay laaj ñoom ñu indi ay tontu wala ay contribution ñëw si donc euh, euh, loolu daal mooy li nga xam ne ñaari fan yooyu mooy bu weesoo ñetti fan jàngale yi indi mhm. ñaari fan yi nga xam ne moo si topp nii mu am nag beneen fan bu dox ci diggante bi mu doon àllarba àllarba bi nag dafay nekk diggante huit heures demi ba dix heures et demi ko defee boobu nag li nga xam ne moom la ñuy indi programme yi indi yëpp nag diggante alxames bi ak ajuma bi ak yeneen ñi si diggante bi yi nga xam ne activités yi nga xam ne ITFA mi ngi koy def ITFA nag mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo koy dégg mooy Islamic Tijaniya Foundation of America euh, bi nga xam ne moo boole xadara yi nga xam ne ñoo dekk cinquante deux états yi euh, ñoom nag ñoo bokk tudd ITFA bokk ànd nag di yëkkateendoo di tegandoo bu ko defee nag pour ñu mën a ànd di yëkkandoo tegandoo dafa am nag bis bi nga xam ne chaque semaine bis bi nga xam moom li ñu leen jagleel ñuy toog nag ànd toog ci benn ëtt toog waxtaan yi nga xam ni moo xam si li ñuy nekk wala si ñu bëgg jëm wala ci li ñuy xalaat lu mu ci mën a doon rek ñu toog waxtaanee euh, ko indi ci ay ay xam-xam yu leer indi ci ay waxtaan yu leer weccant si xalaat ba nga xam léegi buñ ko tëggee ba nas ba teg ko buñ ko indee présenté ko nit ñi dana doon li nga xam ni euh, macha allah euh, nopp dina ko mën a dégg te ba dina ci mën a tegu mu ànd ak feex donc yooyu daal sëñ Pape mooy programme yi nga xam ni dox na ci diggante bi. Euh, ci diggante fanu jàngale yi ak euh, fanu euh, yi nga xam ne alxames bi ak àjjuma yi nga xam ne moom la ñuy def programme yooyu macha allah. alhamdulilah rabil alamin Cheikh Tidiane yooyu am na solo xam naa bu ñu bu ñu ba ci kanam dinaa soxla ay numéro téléphone yoo xam ni ku bugg dugg ci daara ji numéro yooyu ci ngay jokkoo ak waa ITFA. pour ñu mën a bind la ci daara ji. koo xam tamit da nga bëgg a dabaate. bëgg xool li nga xam ne moo fi am semaines yi passé weer yi passé at yi ñu génn fan nga mën a dem pour mën a xool loolu gën ci defaraat sa aluwa xam na daal lu ñu def dara di rek ñaanal sëriñ bi gudd fan ñaanal ko wér ndaxte leer ya nga xam ne maamam Cheikh El Hadj Malick si radiallahu taala anhu taaloon na ko ci senegal pour jàngale diine yàlla ji ci ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa indee woon dëgg-dëgg moom feeñ yent yooyu jël na ci indi ko fi Amérique mi ngi nag di tas ci état yëpp yàlla na yàlla gën a dëgëral ko ndax moom bu gën a dëgër rek islam gën a dëgër wante Cheikh wax sànq wax nga lu am solo ne nga guddi àjjuma ci lañ indi kilifa yi ci lañ indi borom xam yi ci la ñuy waxtaan ndax te ko képp koo xam ne yaa ngi jàng yaa ngi waxtaan yaa ngi diisoo doo réer noonu lañ kon sëriñ bi indi la tey koo xam ni kilifa la ci tarixa bi mbokk taalibe la kilifa ci diine koo xam ne yàgg na ànd ak waa ITFA ci gàmmu yi ak ci convention yi koo xam ne mën na waxal euh, néeg yi nga xam ne yëpp moo nekk ci biir kër suñu maam euh, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mu suñu mbokk euh, Seyid Youssouf Diakhaté moom lañu indi tey mu nar waxtaan ak mbokk yi loo xam ne nag thème bu am solo la moom dina ci dugg si ak yéen côté Seyid Youssouf ñoo ngi lay nuyu di la ziar mu gën a teddee te di jox ñaari loxo. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Pape dafa mel ne sëñ Youssou dafa war a euh, unmute téléphone wala kii bi pour ñu mën a dégg allah waa xam naa kon mbokk yi nekk ci régie bi suñu mënee jàppale ubbil ko micro ndax ñu mën ko dégg parce que sànq maa koy seen rek ci ci kii bi ci studio bi asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw sëñ dafa mel la sa micro rek pour ñu mën la dégg incha allah. xam naa ni cher euh, fileeg euh, bi waa régie di ko jàppale sëriñ Youssouf waa régie di jàppale mu mën a taal vidéo am euh, taalaat micro pour mën a jokkoo ñoom jokkoo ak ñun thème bu am solo la ñu indi tey. thème boobu nag xam naa ni ci jamono ji boo gisee xew-xew yi ak coow li ak wax yi ak euh, télévision yi ni mu bëree léegi rajo yi ni mu bëree léegi ak lu yonent bi jàngale woon ni wax ni am na cër yoo xam ni bu ko nit ki téyee ci boppam rek moom dina ko mën a dimbali dina ko mën a ràmm ëllëg te yooyu bokk na ci maanaam euh, euh, làmmiñu nit ki muy loo xam ni maanaam mën na defar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 nga xam ne suñ ko nuyoo rek nuyu nañ it fa yëpp yàllante woon na mën a wàcc ci président yi boolem yi nekk ci fifty two state yi ngeen wax kenn ku nekk ma mën a jaar ci turam ak santam waaye bi ma ne asalaamaaleykum wa rahmatullah jàpp naa ne rek mooy nuyoo jullit bi gën a mag te buñ nuyoo sëriñ bi nuyu nañ ay kilifam commencé ko ca xalifa ba cheikh aboubacar mohamadul mansour ak mboolem njabootug Seex Seydil Xaaji Malik waaye suñ baab ni nga ko waxe ñu ngi nuyu attub Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane Sarif radiyallahu anhu jurut ñuy lim suñu ne Cheikh Ahmad Tidiane Sarif radiyallahu anhu mboolem sabe yi dugg nañ ci biir kon nag ñu ngi dugg si ci li nga xam ne incha buñ ko yàlla maye suñ kemt lay kartan ñu jéem ko cee andi te mooy li nga xam ne moom lañ waxoon ak Seyd Al Hasan waxoon kook ajaratu Binta Ñang suñu wëllëre suñu xarit na leen danañ jéem a waxtaan tuuti rek ci màndu donte xam nañ ne ñun suñu xam-xam guddut waaye rek benn liif liñ ci xam def li yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne kenn ku nekk la nga xam nanga ko jotal donte ne benn aaya la kon foofu la ñuy dugal suñu wax xam nañ ne ñi fi jaar ñëpp duñ suñu morom ci xam-xam mën nañ ñoo jàngal waaye rek a ah, ki am afra it bu ne afra la soxla yow nga ne ko sa ceebu keccax laa soxla su boobaa mu jox la ceebu keccaxam rek xam naa bu amee yàq ngeen fot ci it su boobaa da ngeen ñuy jéggal rek waaye ñi ngi nuyu kilifa yëpp fu ñu mën a nekk moo xam biir Amérique la moo xam ci Afrique la moo xam ci Europe la mane ne woon man sama xalaat tey bi ma Seydi Assane Thiandoum waxee ne Maodo maa koy tànn maanaam toppit bi ma ne ko kon yaakaar naa mën nañ koo def ci alxad ndax mooy mandu suñ ne mandu nag cër bokk na ca loxo dafa war a mandu tànk dafa war a mandu bët dafa war a mandu lépp cër bu nekk ci doomu aadama dafa war a mandu nagate màndu mooy bunt boo xam ne soo ko xasee ubbi rek yàlla mën na la caa may ragal yàlla yàlla mën na la ca def nga nekk di julit bi gën ci jullit yi waaye nag màndu bi a taxaw ci jamono bii ñu toll xam ne mën na defar lu bari waaye mën na yàq lu bari mooy làmmiñ nit ñi daal dañu mel ne kenn ku nekk danga nga fayal sa lañ làmmiñ rek lu la neex wax foo ko neex waxe làmmiñ bu xasee génn fok loxo mën naa yàq tànk mën naa yàq bët mën naa yàq ndax dafa mel ne làmmiñ mooy commande bi nga xam ne mooy taal télévision bi su ko defee dañ ci jéem a andi tuuti ak lépp loo xam ne nii yàlla man loo nañu ko ci rek ñu jëm ko ci andi incha allah ci kàttanug yàlla xam nga nag suñu ne màndu gaam sa xel dana dem ci Seydina Omar ibnul Xataab waaye ki ñu tax a tey moy Omar ibnu Abdul Aziz bi nga xam ne moom wax dëgg yàlla ci xilaafaam lum gàtt gàtt lim ci liggéey kenn xamul naka la toll te lakkuma yépp mooy màndu te it nga xam ne su waxtaan wi demee ba ci kanam da nga ci xame ñu baree bari lebu woon nañ ko wax nañ ne Seydina Omar ibnu Xataab li nga xam ne mooy ndax bul fàtte ne wàllu ci famille Seydina umar ibn khattab la bok wax na ci ñu ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam wax na lu niroog Omar ibnu Abdul Aziz ni mi ngi déclarer ni mi ngi ñëw lool lépp suñu demé ba ci biir lu ci xaj rek dinañ ko andi waye motax tax ma ne la alxadlul xadaalatu xuluqul xadlun sine min akatil axlaaqi allati amaraha biha al islam xaala taxala inna allaha yaamuru bil xadli wal وإيتاء القربى وينهى عن الفحصاء والمنكر والبغي يهيسكم لحلكم تسكرون كان معاوية يصب علي بن أبي طالب في نهاية قطب جمعة وأمر بإنشاد أبيات في شبهه تداولت بين الناس يحفظها الصغير والكبير فاتخنا بها الحمر بن عبد الحسيس فسموا معلمه وعصره يوم الساكن وأنه إذا كان خليفة إذا كان خليفة سيحمر عالم الإسلام بالحق والإمساك حن الإبن علي فاستجاب له داء فلقب بخامس الخلفاء الراشدين فأمر بترك التوبيخ الحلا في قبة وبطل بآية المذكورة ولما عكل بالحكم بركت أيامه برزق الواسع حتى كان رجل يحمل يحمل صدقه فلا يرى فقيرا يحتاج إليها والسنة تؤكد الحتل في كثير من الحديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرأة تركه ما لا يحنيه وقال صلى الله عليه وسلم إياك والجلوس بالطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها فقال إذا أبيتم إلى المجلس فحطوا طريق حقه قال وما حق طريقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد البصر وقف الأزى ورد السلام والأمر بالمحروف ونمح المنكر وخالص صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون بيده ولسانه يقول الله نحسن كتبه فوقنا لن يتقون جب لكي باري لن يكون تسارة لن يكون سخلا من لكون موته بني وقتي من لك ma ne suñu ne ci màndu la waxtaan danañ andi Omar ibnul Xataab lu tax ñu andi mooy ne cosaan bi yëpp ci moom la ndax Omar ibnu Abdul Aziz bii nga xam ne moom lañ war a waxtaani allah waxtaan woowu nag la muy jëriñ mooy ñu jël ay exemple ci moom boo xamee ne incha allah kenn ku nekk da nga ci jéem roy xam lan la mànduy jëriñ su booba ak lan la mànd def màndu mën a def ci société bi ba kenn ku nekk dëkk ci sécurité kenn ku nekk dëkk ci jàmm waaye kenn ku nekk dëkk ci yaatu yaatu boo xam ne doo lor kenn kenn du la lor kon lu tax ñu ñëw ci Omar ibnu Abdul Aziz bii ñu bëgg a waxtaane tey nga ne ma kañ la juddu ma ne la mi ngi juddu ginnaaw bi nga xamee ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam gàddaay na ba am juróom benn fukki at jóge na màkk ñëw madinatu munawara ba am juróom benn fukki at omar ibnu abdul aziz bi ñu xam ne tey li ëpp ci waxtaan yi ci moom lay dellu ci lay door a juddu kon kan moo ko signalé ne woon omar ibnu abdul aziz mii mooy doon juróomeelu xulafa ci khulafa yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam bo ba waxee abu aboubacar wax seydina omar wax seydina usman wax seydina aliyun karamallahu wajhu lu tax nga tëb rek jox ko position boobu te nga xam ne ginnaaw loolu lu mat juróom-ñaari amirul mu'minin jaar nañ fi balaa moom ñu ne kon màndu gam màndu woon ak jub gim juboon ak liggéey bi nga xam ne liggéey na ko ci lislaam ci waxtu gàtt wi mu fi toog moo tax ak jubam ak mbaaxam andi ko jox ko position juróomeelu xulafa ba nga xam ne boo demee tey dañuy wax ne xalifa yi juróom lañ moo ñu la xaamisu xulafa ar-rasidin mooy juróomi xalifa bi nga xam ne ku jublu woon ku baax la woon ku màndu la woon seydina omar ibnul xadaab laa la wax maamam ndax sëtam moo jur ndax omar ibnu abdul aziz ki nga xam ne yaayam danañ koy wax umul xaasim waaye layla la tudd layla moomu xaasim moo ko jur xaasim moomu omar ibnul xataab mooy baayam omar ibnul xataab radiallahu anhu bi nga xamee ne mi ngi nekk amirul mominina ñëpp xam nañ ne dafa amoon yitte ci kawe bu guddee daf daan wër di def patrol ci biir dëkk bi dafa mel ne suñu technicien bi moom moo rawaxal ndax fi mu ne gisatuma ñi ma doon waxal su fekkee ñi may dégg ñoom ñu signal ma. maa lay dégg maa lay maa lay dégg bu baax sëriñ bi. waaw yow yoway MC bi da nga war ma gis comme ma xam ne yaa ngi may dégg. ñoo ngi lay dégg bu baax quoi. waaw ah, alhamdulilah. ma ne Omar moomu daf daan jóg di def patrol ci biir Madinatu Munawara bu guddee. Mhm. wër gi muy wër nag. ba toll ci benn buntu kër. mu dégg fa. benn soxna bu mag bu fa ne di wax doomam bu jigéen bi mhm. naan ko jëgal nga jël ndox mi nga sotti ko ci meew mi ndax jaaykatu soow la woon mhm. nga jël ndox mi nga sotti ko ci meew mi nga jaxase ko bu subaa nga xëy jaay ko déglul xale bu sel màndu boobu lim ko wax li tax ñuy andi mawdu bi tey li tax ñuy andi tupit bi tey xale bi na ko ah yaay li may sant xanaa xamuloo amirul mu'miniina buuru julit bi daf koy tere mu ne ko bul ma fontoo lu tax nga naan buuru julit bi daf koy tere buuru julit baa nga tëdd gërëm ci nelaw maag yow ñu nekk fii ci suñ biir kër ma lay sant loo xam ne ci la ñuy dunde nga ma naan buuru julit bi daf koy tere mu ne ko yaay su fekkee buuru julit bu Omar ibnu Xataab ba nga këram ci nelawit yàlla moom mi ngi ñuy gis mhm. kon loolu xam-xam bu yaatu la ci ne kenn ku nekk ci ñun boo gëmoon ne li ngay wax di ko def jàpp ne kenn dégg ko kenn gisu ko yàlla mi ngi jàkkaarloo ak yow allah yaxlamu man xalaqa wa huwa latiful xabir loolu la yàlla wax ci alquran yàlla ne yéen su ngeen xamut man ma xam li ma bind te maa dañ kumpa nag doonte ne maay ki ñeewantu ci ñëpp nag waaye kenn ku nekk la ngay def di ko wax maa ngi jàkkaarloo ak yow naka te xale bi dafa mel ne loolu la doon junju yaayam mu ne ko bu fekkee ne buuru jullit bi nekkul di ñu dégg sax na nga jàpp ne su boobaa yàlla mi moom buuru jullit bi moom mi ngi ñuy dégg te mi nga ñuy gis kon lii lu xaraam la duñ ko def nga dégg ci bépp jaaykat boo xam ne la ngay jaay yaa ngi cay xooj bi ca bokkut pour naxe ko nit ñi ba jënde ko ñu jaaya ko price boo xam ne wuute na ak original ba taxoon nga jóg su boobaa rek lii xale bu jigéen bi wax wàcc na ci yow yàllaa ngi jàkkaarloog yow mi ngi lay gis mi ngi lay seede man nga nax ki ngay jaay alal ci ba lekk xaalisam waaye yàlla mi xam lépp moom mënuloo koo nax loolu njariñ la ca waaye li tax ñu jóg mooy xamul ne booba Seydina Omar nu Xataab mi ngi taxaw ci buntu kër bi waaye feeñuwut dafa daal di jël lu mën a kër gi rek ba mu ko mën a numéro numéro kër gi pour xàmmee kër gi bi bët setee mu def itte bu mat sëkk ne man tay xale bi dëkk ci biir kër gi bëgg na maa xam kan la lijjanti ba xam ko bam ko xamee mu dajale njabootam yépp bi mu dajalee njabootam yépp na leen man day léegi mag laa waaye su fekkoon ne ndaw la gis naa xale bu jigéen boo xam ci mandu teem ci ragal yàlla maa koy takkal sama bopp mm-hmm. ginnaaw man nag mag laa ba koo takk bëgg naa yéen ñi nga xam samay ko ci bëgg ma takkal la ko xaasim mii taxaw na ko man sama baay bëgg naa ko mu takkal ko soxna soosu soxna soosu laa la wax ne la moom moo jur layla layla boobu moo jur xamar ibnu abdul xasis bii nga xam ne tey moom la ñuy wooyee juróomeelu xalifa gis nga na Omar ibnul Xataab njàngaleem foofu nam fa mhm. naka te buur julit boo xam ni tey su doon la dañ la naan mais Joe Biden mi nekk président Amérique yaa ko ëpp doole. Mhm. nga tànnal sa njaboot tànnul doo ko lu may ku màndu te ragal yàlla. Mhm. seetluwuloo ci famille ba mu bokk. seetluwuloo ay million la denc. seetluwuloo diplôme am fan la tol yow la la ci itteel mooy ragal yàlla. ragal yàlla boobee ci itteeloon nag moo meññi tey ba am ku mel ne Hamar ino Abdul Aziz bii. wax mi ngi judd ci juróom benn fukki at ginnaaw kàddaay ga jàng na moom Omar ibnu Abdul Aziz bokk na ci ñi ko jàngal nijaayam Abdullahi ibnu Ubaydullah ibnu Omar ibnul Xataab ndax wax naa la ne Omar mooy wàllu maamam ci wàllu yaayam moo tax abdu Ubaydullahi bii ibnu Ubaydullahi bi ko jàngal nijaay la ci moom jamono bi nga xamee ne mi ngi koy jàngal nag Mm-hmm. am na ay abyaat ci suñ ginnaaw léegi bi ñuy ubbi waxtaan bi ñu wax nañ ko yoo xam ne ni Seydina Muawiya ak njabootam mboolem juróom ñaari buur yi topp ci moom yëpp dañu sosoon ay abyaat yoo xam ne kenn ku ci nekk dem na ba xaalimul islam yëpp imaam buy xutba booy tëj sa xutba moom nga koy tëje te lañ koy tëje lu rafet ndax خاص سيدنا علي كرم الله وجهه ولا الدرم وقت مام لنيا ولا خمني يون أبو يسني سني وقتك نحيت نك محاوية ما كدون دفع ما كتي يزيد دينغ أك محاوية ابن يزيد مروان ابن عكم عبد الملك ابن مروان دينغ وليد ابن عبد الملك سليمان ابن عبد الملك نيب كان كوتين يونيو ndax la tax ñu gën ñu mooy la borom risaala waxoon wa anna xayru qarnu al qawmu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam suma yaluuna suma yaluuna suma yaluuna képp ku la gën a jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek moo la gën ginnaaw nag ñun yàlla musal nañ ci jamono boobu ba fekke ko histoire yi dox seen diggante ba nga xam ne tey ñi ngi nii ay téere di ko nettili ñoo tax duñ ci sori waaye moom ci la way yooyu moom Omar ibnu Abdul Aziz di ko way ba nijaayam bii ma lay wax Abdullahi ibnu Ubaydullah dégg ko ne ko yow xam nga li ngay wax mu ne ko ah ay way la ma dégg mokkal ko rek di ko way waaye boobu moom ndaw la mu ne ko lii day ci kiñ ko jëmee mooy Sayyidina Aliyun karamallahu wajhu hmm. yaa mooy ki yàlla bañ mooy ki nga xam ne tuut ku baax dem demet mu ne ko loolee mu ne ko lii la moom ca booba la sànni ci xolam moom Omar ibnu Abdul Aziz ne bis bu ma yàlla maye ba ma am cër ci nguur gi lii day danaa ko sotti ndax lii day bokkul ci màndu keroog la ko gëj a wax waaye mu denc ko ci xolam nag naqar boobu mu metti ko ba keroog bi ko yàlla falee ci buntu nguur gi loolu la njëkk a soppi moo tax nga gis mboolem imaam buy xutba li ëpp buy jeexal xutba indi aaya bii ma la wax inna allaha yaamuru bil adli wal ihsan wa itaai sil qurba wa yamxa xanil faxsaai wal munkari wal baxi yaxisukum laxalakum tasakkuruun gis nga moo lay wax lan mooy njariñul màndu tey baba ba àddunay tukki aaya bii dafay continuer des ci xutba yi way yele tey man nga dajale millions yi jullit mënuñu wax benn baat ngir dafa tegon ci par parlo ak ñak mandu motax julit momut par parlo boy bëgg da ngay bëgg ngir yalla soy bañ da ngay bañ ngir yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena soy bëgg nit nang ko bëgg ndank ndax xamulo ëlëk dana mujj nek sab nonam ndet soy bañ nit nang ko bañ ndank ndax xamulo ëlëk dana mujj nek sab soppeem ndet ci foofu la Omar ibnul Abdul Aziz soppee loolu keroog bi ko yàlla fale waaye bala loolu Muawiya mii nga xam ne mi ngi bokkoo ñoom ñëpp nag ñi ngi bokkoo ci Banu Umayyat mooy seen xeet Muawiya mii nekk na buur ñaar fukki at Yasid ibnu Muawiya doomam moom it na amirul mominina ñetti at muhawiya ibnu yasid moom it na amirul mominina benn at marwan ibn akam moom it nekk na buur benn at abdul malik ibn marwan nekk na buur fukki at walid ibn abdul malik moom it nekk na buur fukki at zuleyman ibnu abdul malik moom it nekk na buur ñaari at balay Omar ibnu Abdul Aziz di ñëw juróom-ñaari nit dox nañ digganteem ak Seydina Aliyun ndax xam nga ne Muawiya mooy ki nga xam ne ginnaaw Seydina Aliyun moom moo toogoon ci nguur ka hmm. nekk fa ñaar fukki at dégg lan la njëkk a def ginnaaw bi mu jàngee ba pare ba ñëw misoroon ci xolam ne yàlla bu ko joxee nguur gi wala mu am ci position danay ceeñ loolu waaye balay boobu Omar ibnul Xataab wax naa la ne déclaré woon na Omar ibnul Abdul Aziz mii te ak seegut ndax Seydina Omar ibnul Xataab li ñuy wooye kësfu yàlla daf ko ko mayoon ma jox la ci benn exemple nekk na ci kaw min baram ba di xutba fekk mi ngi yebal soldaar si ñu dem xeexi bi mu demee ba gis ne saara yaa may capitaine bi ngi koy bëgg lorte lor te booba moom ma nga ca jullikaayam ba ca kaw kaw min baru yenente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ma war ci la ko wax ne ko rek yaa saara aljabal te naka te kaw min bar bam toog nangami hundred kilomètres digganteem ak saara yaa dégg na li ko Seydina Omar ibnul Xataab wax ba tax mu mën a làq ci toja ba mujj ci saay-saay soosu noon yooyu nga xam ne lañ pare woon mooy faagaagal ko loolu naka la ko nit ñi xame biñ nekkee ci jumaa ji ci biir xutba bi rek dégg na Seydina Omar ne yaa saariya al jabal ñëpp jaaxle ci biir jumaa ji ndax loolu mënuñu ko di ko gis ci xutba ñu ne waaw lu xew kon lu xew lu xew ba yàlla def saariya moomu ñibbisi Mm. bi mu ñibbisee ñi nekkoon ci jumaa ji comme li xew ci jamono tañ mm. kumpa te yàlla rek dañ kumpa waaye doomu aadama la yàlla bindee noonu ñu mm. laaj ko ko ñun day dañu toogoon ak Seydina Omar ibnul Xataab waaye ci biir xutba bi amuñu lu may dégg rek ñu naan yaa saraya al jabal loolu lan la woon mu ne leen fa ma nekk cat montagne nangami hundred kilomètres maa ngi dégg bi may wax loolu mi ngi communiqué ak man ndax su ma defut woon loolu booba gaa yi dinañ ma jekku ma làqu ci kaw xeer boobu loolu la ma santoon kon di hmm. la ne Omar mii am na këstu suñ jamoon ci loolu rek war nga koo mën a gëm waaye itam moom Seydina Omar mii daan na toog ba mu yàgg mu ne min walati rajulun asij yamlahul ardaal xalata mu ne ci samay doom yi benn góor dana ca génne muy boroom xaañ-xaañ ci jë sama doom boobu kooku góor kooku di génne ci sama biir doom yi hmm. dana feesal dell ak mandute ci kaw suuf ba nga xam ne kenn du mën a dëngati ngir mandute koo xam ne nii dana ko feesal ci kaw suuf si hmm. moom la Seydina Omar waxoon waaye tuddul fenn ne Omar ibnu Abdul Aziz la Omar ibnu Abdul Aziz bii nag bi mu nekkee xale li tax ñu ne moom la yàlla def fas weq ko ci jëm weq bu metti jëm bi nàcc deret ji di tuuru baayam ba di ko fompal naan ko su fekkee ne tey yowey xaañ boroom xaañ-xaañ bi nga xam ne moo bokk ci bannu umayata dañu wax ne bis bu ko yàlla kiyee dina feesal suuf si ak mandute su fekkee yow mii la day sa xaañ xaañ bi metti na lool waaye lu metti metti jural na ma kontante man mii di sa baay yàllante woon man ma fekke loolu wallahi bam koy wax xamul woon ne Omar ibnu Abdul Aziz la waaye comme Seydina Omar ibnul Xataab waxoon na loolu lii ñëw xew ñëpp dal di bàyyi xel kon Omar ibnu Abdul Aziz mi nga xam ne sët la ci moom sëtaatam ndax sëtama ko jur kon bii benn la ci mandarga i nga xam ne Seydina Omar ibnul Xataab feeñale woon na ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it daana def lu niroog loolu mel ne kuy koy léebu ne daan na wax saaba yi ne yàlla mi nga xam ne traité bu ko tey bis dana ñëw dana fal ci seen biir koo xam ne buur bu màndu lay doon ci biir màndoom kooku dana tax yàlla indi koom-koom bu bari wërsëg bu bari woo xam ne kenn du soxlaati ci kaw suuf nakate moom it booba seydina omar ibnul abdul aziz moom la cay junju la tax nag ñu ne moom la loolu lépp danañ la ko wax incha allahu gis ba matee takk soxna mi ngi takk soxna suñuy wax Fatimatu bintu Abdul Malik nga xam ne papaam buur la woon lam njëkk a def mooy mboolem or bu mu ko fekkeeloon ci jamono boobu dafa nungu or yëpp jaay ko na ko buur la woon amuloo ko woon ci lu leew kon dañ koy delloo ci bayti maal mboolem koo xam ne bi mu faloo am nga alal joo xam ne am na luñ ciy sikk def na dañ koy delloo ci bayti mal mu nekk buur boo xam ni dafa mandu ay atte mandu du par parloo du féeti ci xeet du séq kenn lu may la nga xam ne mooy dëgg ga fu ko dëgg ga fekk rek loolu la koy atte xam naa du sorek la muhammadul basir yi wax ci yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko su waree wax naam naam lay wax su waree wax lay wax waaye amul bët muy xool wala jëmm ci muy xool fu mu war a waxee laa mu ne fa naam fu mu war a waxee naam mu ne fa laa kenn mënu koo am ma ne Seydina Omar ibnu Abdul Aziz dafa mel ne meññet woowu wala ween woowu namp na ko ci yeneen sallallahu alayhi wa sallam mu nungu or bi yëpp jaay ko organisé ba nga xam ne ci jamonoom nit daan na génne alal bëgg koo sarxe doo am kooku sarax ngir ñëpp am ba woomal ngir màndool danga nga daan jël alal bëgg koo jox nit ma su fekkoon ne ci misaal démb nga ñëwoon tey kon tey doon naa ci am soxla waaye tey wax dëgg yàlla alhamdulilah maa ngi jeex hmm. kon nga nagate su fekkee ne bëgg nañ àdduna bi jàmm nekk fi toog hmm. ñuy mandu mandu ci suñuy diggante mandu ci suñuy soxna mandu ci suñuy njaboot waaye mandu ci mbokkub jàmbur kenn ku nekk julit bu nekk sa moromum julit mooy sa seetu hmm. waaye booy wax ayibam it yow mi wax ayibam yaa ko ëppi ayib hmm, su fekkoon ne xool nga say problème dans la doy sëkk walif ngay wax problème mu jàmbur walif ngay dugg ci mbokku jàmbur rawatina nit ku yiw ku sell ñu baax ñu am cër ci yàlla rusuloo tiituloo laqtu ci ginnaaw internet lu la neex nga wax ku la neex nga saaga ku la neex nga yàq deram foog ne àdduna fii la yam ku yàlla binde loolu da ngay nax sa bopp kon suñ doon wax dañuy wax ni buur yëpp suñ maam woon du jar kenn ku ne jóge ci dëkk ba nga dëkk ndax loolu soxla daan la fa fekk yenent bi sallallahu alayhi wa na wax lu mel noonu pour signaler عبد العزيز pour signaler Omar ibn Abdul Aziz ndax da na wax ne yabxasu Allah li asa fi kulli raxsi mihatin man yujaddituhu ti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mo dan wax lolu gis nga mu ne bop téeméeri at bu nek yàlla dana fa yabal ko xamni mu jaddit lay don moy besal dine rek la wat ko tegaat nit ci yoon moo tax ahmad ibnu ambal ne moom jàpp na ne téeméeri at bu njëkk boobu ki yàlla yabal mu beesal diine mooy Omar ibnu Abdul Aziz ndax ci juróom benn fukki at ci gàttaay ga ca la juddu kañ la falu mi ngi falu bi mu amee juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent baax naa bi gàddaay gi amee juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent laa la waxuma la ay atam moom mm. bi gàddaay gi amee ninety nine years moom Seydina Omar Ibnul Xataab ci la falu ak palam yépp mi ngi ci dund ñaari at ak juróom weer ak fukki fan ak ñeent mm. loolu a toog ci amirul moominiin gi dafa mel ne fukki fan ak ñeent rek moom la doxale digganteem ak Seydina Ababacar mi ngi gaañu moom Omar ibnu Abdul Aziz bi nga xamee ne gàddaay gi am na téeméeri at ak benn at ci la génn àdduna dundu ñaari at ak juróomi weer ak fukki fan ak ñeent waaye nga gis lim ci réglé ci kaw suuf nga gis li nga xam ne taxawal na ko ci mandu nga gis li nga xam ne soppi na ko ci diine lislaam ji nga xam ne imaam bu mas a toog sa kaw min bar rek yaa ngi daan xas Seydina Ali mi nga xam ne moo tax ubaydu ibnu abdu abdulahi ibnu ubaydullahi ne ko ndax xam nga ki nga doon wax kan ki ki kiñ way wayi di ko xas kan la mu ne ko déedéet mu ne ko Seydina Aliyun la ndax xam nga ne Seydina Aliyun bokkoon na Badar mu ne ko bokkoon na Badar ci ñi demoon Badar ñi xare Badar mu ne ko moo nekkoon dooley Badar sax te yeneen bi kat sallallahu alayhi wa sallam moo ne woon yàlla yundulu na waa ahlu Badar na leen def leen lu leen neex bis ñu ki tey aljana mooy seen kër loolu nag moo taxoon mu sànni ci xolam ne man day bis bu ma amee cër benn pal buñ may jox ci nguur gi insha Allah waxtu ñaaw ji dana fexé ba kenn du ko waxati ci biir khutba yi mané la ñew na ci hadith yu bare bare bare bari yo xamné ni mi ngi li ne julit bu nek da nga wara man bal li am nit ku nek da nga wara man mànd ñàkk gi nak lama la waxon ci commencement waxtan bi rek la lay deugural soxla nañ ko ci loxo soxla nañ ko ci bët soxla nañ ko ci tànk soxla nañ ko ci xol soxla nañ ko ci xel soxla nañ ko ci ruut waaye ci làmmiñ lañ ko gën a soxla ndax làmmiñ nag mooy caawi bi nga xam ne bu xasee ba ubbiku rek loxo mën a yàq bët mën a yàq tànk mën a yàq kon buñ seetlu woon làmmiñ ni ko yàlla binde danañ xam ne lu mën a dimbali nit la waaye lu mën a toroxal nit la te yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat na ci beneen addis ne maa ngi leen di moytandiku ko wax maa ngi leen di moytandiku ko wax ci ñaaw nit dana wax benn baat bu ñaaw mu dugal ko ci safara ay junni junni ci at am na addis bu wax sax juróom-ñaar fukki junni at ci benn baat boo wax mu dugal la ci safara juróom-ñaar fukki junni at yàlla nañ ci yàlla musal. ma ne la ñëw na ci addis boo xam ne ñu ngi ko solo ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu ne bokk na ci liy rafetal lislaam daal nga bàyyi lépp loo xam ne ni amalu la njariñ wax dëgg yàlla nit ki alquran sax daf ñu waxoon ne wa xuulu soo demee bay wax na wax ci lu rafet la nga xam ci moom na nga def ba xam ci moom benn bu ñaaw mën na am xam nga ci moom fukk yu rafet waaye benn bu ñaaw bee la arrangé pour nga war ko wax rabatina par parlo maa ngi ciy ndokkeel sëriñ ahmed si dama fekke benn waxtaanam boo xam ne ci atlanta muy wax joo xam ne ni wax dëgg yàlla kenn ku nekk boo tuddee ci salal man nga ko settantal ndax na nga koy settantale mooy lépp njariñ la te benn lor nekk ca waaye la ma ci gën intéressé mooy man te amut par parloo ndax waxtaan na ak jullit yëpp hmm. bokkul ci ko wax ma ne ko su fekkoon ne kilifa buy wax ni nga ko waxee nii la koy waxe kon hmm. amul benn buy sañ par parloo hmm. ndax parloo lépp lu yàq daal moko ko yàq yàlla nañ ci yàlla mu sax amiin yeneen bi ne maa ngi leen di ngeen di toog ci kaw yoon yi ak ci marché yi ñu ne ko su fekkee ne demu leen ba mën a ñàkk faa toog su ngeen fa toogee na ngeen jox yoon wi ngeen toog xàqam ñu ne ko yaa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam lan mooy xàq yoon mu ne mooy soo fa toogee su la nuyoo na ko fay nuyoom na nga damm sa bët bul gis lu ñaaw ci sariyaatul islaami bii ñuy attewoo daf la wax ne boo ne jàkk sa bët ci lu ñaaw rek danga nga war a daal di sëggalaat sa bët ci taxawaay amuloo droit fixé ko ci se ci ba nag waxoon na ma ne ma moo tax moom ne jàkk rek jak bu njëkk mu dama dama nekk am jàkk fixé samay bët xool la may xool ba doy la gaaw ginnaaw benn bi lañ la baalal waaye hmm. fekk na lañ soxla woon mooy ba nga ko gisee rek gaawal nga sa bët ci suuf hmm. loolu la yeneen bi digal fii na la soo toogee ci kaw yoon ba lu mel noonu feeñ la ko gisee rek da nga gaaw sa bët benn kilifa bu baax jorul may turam benn yoon la ma sa ñëwee Amérique ndax kérok ba mu wàccee ci aéroport bañ yóbbu ko ci daluwaayam lam njëkk wax rek mooy nañ ko daldi flight mu dellu lu ko waral mooy jàpp na ne li muy gis moom ci kaw yoon bi bala muy agsi ci dëkk bi fii mënu fee dëkk ndax jàpp na ne kon dana xotti ormay lislaam kenn ku nekk nag ak sa maqaama ak sa daraja gis nga nit ki su mànduwut fenkat lay doon boo fekk ku ñàkk fenkat lay doon boo fek ku ñak mandu jew lay jew kat lay doon boo fek ku ñak mandu kat lay doon boo fek ku ñak mandu dokkatu mbokk lay doon suñ ko bëggona lim man ni ñoo fanaan ci ñak mandu lamuy def ci nit maa wax sayyid na ko moo cheikh sayyid al malik radiyallahu anhu ma ko ba muy lim ñaata yoon la جبريل وات كيننتي يالا محمد صلى الله عليه وسلم دفنا وات نفا نيار فكي جوني يون اك نينت كي تيرو نيار فكي جوني نيار فكي ات اك نيت تي لا وات تي موم 24000 تايم ني نكو ندخ كيناو يننتي بي صلى الله عليه وسلم جبريل واتياتنا من جبريل واتياتنا في فكي يون mu yëkkatee fi fukki yëf min bahdi naasilun فيرفع في رفعها قل فساد القلق والقوم يمن وهب ورحم محد لدن boobu ma ci intéressé mooy màndu gi ñuy waxtaane mu ne keroog la ko fi jibril yëkkati ba nga xam ne màndu bareetut kersa bareetut jàng alquran ngir yàlla bareetut tabe ngir yàlla bareetut lim ci fukk yu demee noonu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne kon na ngay damm sa gis sa bët boo fa gisee lor na nga ko génne maanaam nga gis bant bu tëral wala xeer bu nekk wala pax mu nekk wala weñ buy gaañi ci kaw yoon yow mi toog ci yoon forcé la ci lislaam soo ko gisee da nga ko war a génne ndax du lor benn julit waaye du lor benn nit bu fay jaar bu dul jullit sax mu ne war ku fa jaar na la asalaamualeykum nga wax ko waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mu ngay digle lu rafet ci waxtu wa nga fa toogee waaye ci tere lépp loo xam ne ni lu ñaaw la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee kan mooy julit mu ne julit mooy ki nga xam mbokki julitam yépp mucc nañ ci lor buy bàyyikoo ci làmmiñam hmm. waaye mucc nañ ci lor buy bàyyikoo ci loxoom kon li xew sax mooy boo lorut kenn sa làmmiñ loruloo kenn ci sa loxo na nga ba jariñ nit ci sa làmmiñ jariñ sa loxo bul jam ci ñàkk lore rek soo ci jariñee kay mu gënati fa sa làmmiñ fexeel ba ki nga xam ne am na lu ko réere ci diineem nga man ko koo wax mu jariñu ca nga wax ko ko ca su boobaa jare nga ci sa làmmiñ sa loxo fexeel ba la nga fàggu liggéey mu lewla tom nga mën caa dimbali nit nga dimbali ko ca wala nga gis lu koy lor nga fexe ba génne ko ci sa loxo loolu lépp xeeti ndimbal la ma ne la ci màndu ki nga xam ne soxla bi màndu ko su meree dafa war a feeñ loo mere mere nit bum tax mukk ñu wax ci moom loo xam ne xamuloo ci dara fekkewuloo ko wóoru la ñu wax rek nga ne diw day ni ma ko xamee xam naa ne loolu jikkoom la moo ko def te xamuloo ci dar lu may ne am na mer moo ko dencal ci sa xol waaye bul kontaan bul dëgit ba tax nga wax ci nit loo xam ne danga ko yéene waaye wóor na la ne ngay wax dara du ci dëgg neexal na la wala bëgg nga ci moom rek ñu ne diw def na lu ñaaw nga ne a ah, fooguma ko ci moom ndax ni mel nangam nangam nangam te fekk la ngay wax tus nga ci xamut mm. loolu lépp ci xeeti ñàng ñàkk màndu la bokk موتخ أمن بين يهود هناك يهود يدرس صفات قادم المرسلين فرأى كلها في محمد صلى الله عليه وسلم فأراد أن يختبر علمه وحده فأدان النبي مالا لموحده وقبل الموحد يوم وجدت النبي بين صحابه صلى الله عليه وسلم في حقيقته فتحلق بجمه صوبه قائلا له رضى إلى طيني لقد أخبرت أن بني هاشم رحبك لا يرضون طينا فقام عمر وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسن لي أحتى هذا العدو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر مرني برد دين ومره بحسن الاحترام اشحب إلى بيت مال فأد دينه وسد عليه لما أفسحته بالموت فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله sallallahu alayhi wa sallam gis ju rafet ni mu mën a dimbalee nit waaye gis nga jikko ci ñaaw nim mu mën a dàqe nit ba ci suñ diina jii te diina lislaam am na ci ju rafet tax na ñeneen jóge ci biti ñëw dugg ci diina ji waaye it am na ñaaw ci ay julit ba tax ñi leen ñu am xemeem nekk muslim bañ gisee ci julit jullit yooyu dañu ne comme jullit yi kay lii nekk kon jëratul ñun ñu ciy ndax ñoom ñoo ma bokk benn atte lu ko waral jikko ci ñaaw joo xam ne jullit dana koy jikkowoo maa ngi dégg sàng si amit Tidiane bi di wax ci bi ñuy ko bëgg a commencé programme bi liggéey yi nga xam ne sëriñ Ahmed mi ngi koy def mm. bokk na ci njàngale bi njàngale maama ci gën a ndax gis ngeen jamono bii ñu toll suñ njaboot gi suñ teelu jub ci ñoom xamal leen seen diine bi ëpp solo ndax buñ leen xamalee suñ diine rek nañ xam aada yu rafet yi nga xam ne lislaam ñëwee daf ko fee bayi ku gis jamono ni muy doxe ak yàqu jamono fi mu te kenn amu ci pexe ndax fi mu ne bu njëkk da nga daan jël sa njaboot nga dugal leen ci sa biir kër nga tëj leen su boobaa seef nañ ci ànd ak kuy def lu bon hmm. waaye léegi mënuloo ci dara lu tax mënuloo ci dara mooy penc mi ñuy wooye internet maa ngi ci sama biir néeg ñaata damay déglu tey ci misaal xaw man sama bopp xaw ma nu mu toll koo xam ne mën na maa jàngal mi may déglu koo xam ne nii moo ma gën a rafet jikko mi ngi may déglu koo xam ne nii am na lum xam ci man su ko waxoon àdduna tukki mi ngi may déglu hmm. kon su ma fi taxawee man toog war na maa bàyyi xel ci sama bopp waaye li ma jublu ci wax jooju nag moy ne suñu njaboot ndax hmm. tey kër goo dugg pour nga fekk famille bu toog di waxtaan sax dafa jafe kenn ku ne yaa ngi ci sa téléphone rek baaraam yaa ngay daw rek kenn xamul lu ñuy hmm. wax dégg nga am na lu ñuy woowee Facebook donte man aw ma am na lu ñuy wax YouTube dégg naa yi am sax kenn xamul naka la toll. lu baax su fa bare it lu mën a fa ëpp. tey xale bi nga xam ne yar nañ ko yarul mu dugg ci loolu bu ko xoolee benn yoon du ñaareel la ko amal interest ci lay ndax fu lu bon nekk lu baax a nga fa. su la neexee doo xool lu bon ndax foofee ñu def kuy dal ci kaw nit di yàq deram di doñ wàllu yu yalla def nañ fa kuy jangale ci l'islam def nañ fa kuy jangale ci alquran dila wax lan moy defar julli lan bu sa julli yakko noko wara defare naka ngay jappé lan mooy faratay japp lan moy sunné japp naka lañuy sango set naka naka naka lo lepp ñang ko fa def mhm. kon soko ko dem ci la aram nga di xol ya bëgg duufal ci lu aram ak sa jikko ju ñaan mhm. denga ma la benn yahut a ngi nii koo xam ne dafa jànkoon melo yeneen bi mujj ñëw ci jamono naka la war a mel bañ wax ne mboole jikko yiñ ko waxoon yëpp gis na ko ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom yahut woon waaye jikko ju rafet yiñ ko wax ne ko yeneen bi mujj ñëw ci jamono yëpp noonu la war a mel jikko ju rafet jooju gis na ko ci yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu des benn benn bi mooy. dañuy wax ne ku am sago la boo ko ŋàññee du la faale soo ko saagaa du la faale loo ko mënti def du la mu ne nag naga laa mën a def ba xam ne kii benn jikko bi des ci moom mi ngi ci moom naka la def mooy dal di ñëw jël alal na def koo lebal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam joxanteeg moom benn det hmm. ci misaal mu ne ko woon jox naa la ko on the first ma war a fay on the fifteen on the fifteen jotakut ten jot mu ñëw ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam pour bëgg xam ndax kii mooy kim jàngoon ci téere yu njëkk ya wala du moom mu ñëw fekk yenent bi sallallahu alayhi fi mu toog saxaaba yëpp a ngi ko mu dal di ñëw rek poñe yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jël ñaari mbubbam yi xoj ko nako ko fay ma sama bor bi la wax sama alal ji mala lebalon wax nañ ne yeen giru bani asim du gen fay bor omar jotaay si na omar ibnu khattab ma nga fa woon hmm. mu ne beurek rek nako ya rasulullah rasulullahi ma ndigal ma dal tekkali bopam ak ba denga hmm. bam rocce jasi ci yenen tibi nako omar ya omar defal ndank mbir mitu nii dag digal man ma fay ko borom moom it nga digal ko moom yahut bi na ko na mm-hmm. na bu rafet mm-hmm. dégg nga waaye lan la ca teg daf ne Omar demal bayti maal nga jël bor bu toll ne li ma li ma lebaloon waaye nga yokkaat lu toll nga jox ko lu ko waral mu ne mu ne bi ko diggee rey dafa tiit ba jaxasoo mhm. tiitaange boobu nga xam ne yahut bi tiit na ko ci gis ta jaasi ragal ne danga koy rey ci taxawaay tiital boobu nga ko tiital moo tax mën la nga jëlaat beneen alal ginnaaw boo ko fayee borom ba pare nga ñëw nga dàmpe ko mhm. yahut bi xool yeneen ti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu ne ko ashhadu an laa ilaha illa واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كون بن انترس تما جانغون ملي يننتي بي موجي نيو سي جامونو ما غيس ييب سي يو بام ديسون بن بي يو خمنا ني دو جاخاسو با ديف لو ورتا ديف تو كونتر با ديف لو ورتا ديف خمنا ني دغ دغ يو يننتي الله محمد صلى الله عليه وسلم يو لا يو kon mu delu ci wat ci lima la waxon na la jikko ju rafet man na tax nit ñëw jikko ju ñaaw man nga ci daq nit gis nga tahalat imraatu ila nabiyu sallallahu alayhi wasallam wa hiya qathiratu qamat fatahikat umuna aisha baxta xurujiha fa saalaha nabiyu salallahu alayhi wa دنگ امرنا amarna ci naqi لمحة من تم فقال لما fa من تم hasa ولو مت معها فلا يترك كونك لزوجتي يوم القيام لي تكو يا عائشة يا عائشة ميغا خامني موي ام المؤمنين يا عائشة ميغا خامني يرنت صلى الله عليه وسلم موكو خول بام ياك مون قصو نصف دينكم من حاسيل أميرة jël leen seen genn wàllu diine ci jigéen ci tuuti ci xees ci te kat suñu la jàngaloon historia Aïcha da gis ne lim mokkaloon ci hadis bari na ponkali saaba yooyu dégg xam nga ne Seydina Aboubacar Sadiq ak li muy baax yëpp hmm. ñeen fukki hadis ak ñaar la mokkaloon dégg nga ñii juróom-ñaar fukki hadis lañ mokkaloon ñii fanweeri ñu néew ñu néew ñoo ci àggoon waaye Aïcha mi demoon na ba mokkal solo na ñaari junni hadis ak ñaari téeméeri hadis ak ñaar fukki hadis ak ñaari hadis moom yaa is two thousand two hundred and twenty two hadis waaye nag fàtte ni jigéen la mu ne jigéen ju gàtt dafa ñëw dugg ci nekk yenent bi sallallahu alayhi wasallam fekk ko yaay si ñu ngi toog suñu yaay bi mu génnee rek yaa ay yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko looy rey mu ne jigéen ji dafa gàtt dafa gàtt rek la wax de te fekk dafa gàtt dégg nga waaye mm-hmm. rey yu mu rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko ci wax ne ko dugalal sa baaraam moom ngeen di wax loj xëcc ko mm-hmm. wala ci misaal nga mel ne melal ne kuy wocc lëmbi deret yëpp daal di sotteeku mm. mu yonent bi sallallahu alayhi ne ko xool nga lii soo ko wannoon ak lu may nekk nekk nekk nekk sa jëkkër man mi nga xam ne maa gën ci li yàlla bind dégg nga man mi nga xam ne mënuma def bàkkaar dégg nga man mi nga xam ne ku ma gërëm yàlla gërëm la ak lu may nekk nekk sa jëkkër lii soo ko wannoon bisu yowmal xiyaam dara laa la fa mënalul kon moo lay wan ni jëw bone yàlla nañ ci yàlla musal te it wax dëgg yàlla wax naa la ne ku màndu du jëw mukk kon nakati wo ñàkk màndu yépp moo andi jëw yu bari moo andi dugg ci su la yoon nekkut moo isi lu la neex wax ko ci ku la neex foog ne dunduk doomu aadama ci àdduna bi la yam waaye suñ bàyyi woon suñ xel ci ne kenn ku nekk ci ñun lii may wax sama bopp laa ci jiital kenn ku nekk ci ñun danga nga wéet ak sa boroom ba foog yowul rek la yàlla bind kon sa dunduk àdduna gi doo ko wecceek sa dunduk ëllëg ci àllaaxira loolu nag boy njariñu lislaam loolu nag mooy njariñal tarixa yi ñu nekk te biñ ci gën a ràññee muy tarixa Seex ma Tijaan Sarif radiallahu anhu doonte ne tarixa yëpp ci yàlla lañ jëm waaye ci bii lañu yàlla tënk kon naafila la kon xawma waxtu wi fu mu toll te bëgguñoo taaraar waaye maa ngi fàttali sama bopp leen fàttali yéen ñi ñuy déglu ne nit da ngay am kilifa soo kilifa nga roy ci moom yenent bi sallallahu alayhi wa mooy suñ kilifa ñun jullit yépp fekke wuñ ko topp ñi ca topp topp ñi ca topp topp ñi ca topp ba ci suñ jamono bii ñu nekk tey mm-hmm. daayira bii wala mbooloo mi ñuy wooye ITFA toujours danaa ci joxe exemple léeg-léeg su ma nekkee Afrique ne leen su ngeen yeexee tuuti waa Amérique yi danañ leen raw ma ne ndax leen lu jiitu di yàlla wàcc ci jamono ña ngay daje di tudd yàlla ña ngay daje di jàng alquran ña ngay daje ñay wasifay wasif ñay jàngi xasaayit di jàngi xasaayit boole ko tuur seen ñaq di ko dunde ma ne leen taluñu benn puukarewu te yàqul dara ci seen jaamu yàlla kon su ngeen yeexee léegi tey dëkk bu mel ne Amérique kii raw leen waaye ki def liggéey bu rëy bii it nag muy fekk juróom fukki réew ak ñaar nga boole leen te ñoom ñëpp di waxandoo di tegandoo dëgg-dëgg koogu yeyoona ñu ñaanal ko yàlla te wax dëgg yàlla la tax mu def ko yëpp mooy roy ay kilifaam ndax kenn ku nekk olof nee na la nga namp rek moom ngay gàll mhm. ñi bokk si lu yàq rek ñoo ko yàq ñi ñëw bokk si lu yàq ñoo ko yàq waaye ña nga xam ne démb ay royuwaay lañ tey ay royuwaay lañ doo ci fekk kenn kuy wax lu ñaaw doo ci fekk kenn kuy def lu ñaaw kon nag ñun internet bii nañ ko jariñoo ci loo xam ne danañu amal njariñ ci suñu diine waaye loo xam ne te duñu amal njëriñ ci suñuy diggante ñunu neen ndax it kat mbooloo mii loolu rek la takke waxu leen ne daja leen alal ngeen jox ma kaay leen ñu bokk jàng alquran kaay leen ñu bokk julli kaay leen ñu bokk wasifa kaay leen ñu bokk siyaari ci borom xam-xam kaay leen ñun ñëpp ñuy dégluwante ku ciy wax sa morom déglu la la nga fàtte woon ñu fàttali la ko la nga xamul woon ñu xamal la ko dëgg-dëgg lii sudul dara dara nekkutul dara ci yàlla kon yàlla na yàlla dimbali ko ñu ngi dellu siwaat di ko siyaar di ko ñaanal yàlla di sàkku ci moom it ñaan di siyaar njabootam yëpp rawatina soxna jigéen comme nañ ko ubbee woon mooy it fa yëpp ñi ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci ñoom waaye yëpp ñi ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci ñoom li ñuy wooye kër yi diine te benn kër la ndax kër yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ñoom ku ci nekk fañ nekk ña nga leen fa fekk di leen ziar di leen jox suñu loxo xol di nuyu mboolem waa Atlanta di nuyu mboolem waa Dallas di nuyu mboolem waa Washington di nuyu sama xarit soxna ajaratu Binta Ñang maa ngi bu baax a baax a baax a baax a baax di siyaar njabootam waaye maa ngi siyaare Seyd Al Hasan Candum nga xam ne wax dëgg yàlla moom it daaw ba ren ma topp ci ne kañ lañoo def programme bi kañ lañ koo def kañ lañ koo def ba alhamdulilah tey commencé nañ ko yàlla mën naa def ñu motliwaat ko ci yeneen ak yeneen ak yeneen yu bare bari liñ ci yaxut waaye it nag dañu bañ a baa doola comme forty five minutes lañ ñu waxoon xaw mu fu waxtu toll ndax man réew ma montar no baax na ñoo ngi koy xool baax na hmm, waaw waaw comme réew ma montar ma ne ah kon bu ma guddal maa ngi nuyu sama waa kër fii nuyu soxna si ma toogal yépp mi ngi ci biir toog tooguñu sax naam moom ma nga néegam waaye ci këram laa nekk maa ngi koy nuyu di ko siyaar di delloo sëriñ pap su fekkee ne dafa am lu ñu war a def mu wax ma ko ndax gan laa ci xaw ma di laa sëriñ pap waaw jërëjëf euh, sang bi ñoo ngi dellu siwaat di sant yàlla si borom subhanahu wa taala bu baax a baax moom mi ñu may ñu mën a toog ak boroom xam-xam mu indil ñu tey euh, nga indil ñu bind bu leer bi tamit nga misaal ko tamit ci misaal bu am solo mooy indi rek photo Sayd euh, Omar Ibn Abdul Aziz indi ko rek teg ko indi ay jëfam pour ñu mën a dégg euh, maandu te mën a xam lan mooy maandu kon boog Cheikh Ahmed Tidiane xam naa du def lu ginnaaw bind bi nga xam ne moom la euh, Seydou Youssouf joxe ñu ubbi micro bi mbokk yi nekk ci état yi képp ku bëgg a participer mën nga dugg ci chatroom bi yëkkati sa loxo bu ko defee ñu bàyyi la nga dugg wala boo ci plateforme yëpp moo xam ci YouTube bi la moo xam ci Facebook bi la mën na ñëw jokkoo ak ci xatal juma bi ci guddi àjjuma bi. Cheikh Ahmed Tidiane am nga fi ay laaj yu jot a rot bu fekkee kenn ñu profité ci ndaxte euh, suñu sëriñ bi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu moom moo waxoon ni boo fekkee ne asamaan dafa wàcc bu jege la yëkkati sa loxo laal ndax doo xam kañ lay wàccaat bu nga mën cee tegaat sa loxo comme yàlla dimbali dañu dégg nga ni ko sang bi waxee ate ngi nii Seydou Assane Thiandoum di ko topp naan ko kañ ngay ñëw ci daara ji kañ ngay ñëw ci daara ji jox ñu bind ba yàlla dogal ko tey kon boog na ci mbokk yi yëpp profité ñu gën a leerlu suñu diine gën a leerlu jikko yu tedd yi nga xam ne moo nekkoon ci mag ñooñu nga xam ne képp ku ci jaar dox ci rek di nga am ngërëmu yàlla suñu borom subhanahu wa taala kon boog Cheikhna Ahmed Tidiane kii baa ngi noonu Uh, jërëjëf uh, sëñ Pape uh, jërëjëf sëñ Youssou Oustaz Youssou ñu ngi lay ziare di la bu baax di la gërëm ci waxtaan bi nga indi ak ni leerale ak so donc donc comme ni nga ko waxee rek xam maani ni man li ma si ñaar daal laa si jàpp bokk na bokk si ñaar yi ma jàpp ci waxtaan bi mm-hmm. mooy benn bi nga dëkk wax que que bëgg ak booy bañ tamit nanga nga na ci diggu doomu mm-hmm. ndax euh, boo bëggee mën nga dem ba mu yàgg nga bañ wala boo mm-hmm. bañee nga dem ba mu yàgg nga bëgg euh, mm-hmm. maanaam daal di euh, ma jàng si loolu mooy lépp looy def rek ci àddina bi rek da nga ci war a diggu doomu maanaam diggu doomu daal dafa mel lu am solo la ci doomu aadama ci li mu war a def ci lépp lu muy yëngatu mu doomu ci bu ko defee rek yàlla mën na am yàlla dimbale ko ci ba nga xam ne rek tolof tolof du ci eh, hmm. eh, kan am donc beneen bi nga xam ne nag moo ci gën am solo sax amaana mooy eh, mandu bi ni nga ko indee ci nit ki muy wattu làmmiñam wala wattu di focus daal ci ay ayibam bañ a focus ci ayibu ñeneen ni maanaam buy focus ay ayibam rek yaa dafay mel ni alors bu xoolee nit sax gis yaakaar ne nit ki am na ayib boo dellu siwaatee ci boppam rek dana mel ni gis na ni moom moo ëpp ayib sax ki nga xam ni moom lay xool bu ko defee yàlla mën na ko dimbale ba mu bàyyi kooku euh, euh, dellu si boppam euh, nekkaat ci boppam ba nga xam ni peut-être que dana am jikko yu bare dana yàlla mën na ci dimbale ba mu rafet bu rek bu defee lu mel noonu tamit dafay mel ni dafa am ay yeneen mandu bi dafay mel na boo ci góorgóorloo la nga ciy bàyyi xel dafa mel dafa am ay jikko yu ñaaw yu bari yi nga xam ne waroon na waroon na la mën a dal euh, hmm. dafa la ay soreel euh, bu ko defee daal dafa mel ni man loolu laa ci ci jàngat bu gàtt rek dafa mel ni man loolu laa tiire ci li nga xam ne wax dëgg yàlla mooy hmm. euh, waxtaan bi ni nga indee ak exemple yi nga joxe yëpp yu am solo yi hmm. moom daal xam naa daal daal maa ngi bàyyi xel sama bopp di jéem a dana am jikko yu ñaaw yu bari nga xamni euh mi ngi ci mi ngi si ñun ci doomu adama yi ci société bi euh, te dend ak ñun trop euh, yàlla mën nañ dimbal dal ba ba yoy soro la yoy dal sëñ bi mën xam dal euh ci ci jàngat bu gatt rek euh, loolu la ci bëggoon euh dolli di ñaan yalla yalla defal ñu ko ñun ñëpp ba nga xamni daf ba ñu am ay mandute bu euh defal ñu ko barke Muhammad sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullah

li sëriñ bi jàngale mandu daarale ko ci suñu xalifu bu baax boobu muy Omar Ibn Abdul Aziz ni mu mandu woon ba nga xam ni sax ci biir këram dafay am ñaari lamp lamp bi ci lay xoolee buy jël ay décision wala xool këyitu umma bi beneen lamp bi ci lay xëcc xool ci bu fekkee dafa war a xool ay këyit yi këram wala jàng doomam yi ak yu mel noonu euh, loolu façon gouvernement boobu nga xam ne noonu la doon doxale gouvernement am ba nangu nanguwaat ay ooru soxnaam ne ko oor yi sa baay buur la woon kon amaana am na ci loo xam ne sellul lool da nga koy delluwaat ci baytil maal gouvernement bu sel bu leer boobu tey moom dafay laajte yi nga xam ni dañuy nekk ay ministre wala nekk ay député wala wante daal nu mu ma ci demee ñoo fi toogal euh, askan wi tey bu ñuy liggéeyee ñu jox leen oto ñu ne auto bii ci a liggéey dox soxlay askan wi mais léeg-léeg sax dañuy jël oto yooyu ñoom euh, seeni soxna wala seeni njaboot war a dem école ñu jox leen oto yooyu ñu ciy dem dafay laaj ndax loolu euh, am na lu leen ciy fekk wala ba tey rek liñ la jox ñu la liggéey ci askan wi mën nga ko jël jox ci sa njaboot ñu faj ci seen aajo mu ne ndax loolu ci maandu te la bokk wala wala daal mer meru yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mi ngi ci Seydina Yusuf alhamdulilah sëñ Pape dinaa hmm, buñ santaatee yàlla ci li ci yonent bi sallallahu yaakaar naa kooku déglu na waxtaan bi te it foog naa li muy laajte laajte boo xam ne nii pour yee ci ñeneen a tax mu koy laaj suñ ko ne Seydina Omar ibn Abdul Aziz bi mu ñëwee lim njëkk a def mooy mboolem koo xam ne sa alal teguwut ci yoon mu nungu ko jël oru jabaram jaay ko dugal ko bayti maal ci màndoom koogu yàlla dem na ci asamaan taw li mu war a taw suuf di ñoral li mu war a ñoral lépp bari alal bari ba da jël alal pour joxe ko te doo am koo ko jox ndax kenn ku nekk am nga lu la doy kon xam nga ne li mbooloo moom ci mbooloo mi nga ko war a delloo li nga mbooloo mi moom nga jël ko jox ko sa njaboot poset nga leen jox xam nga lu ciy tegtal hmm. loolu dafa sori ma andil la beneen misaal bu gën a gàtt waaw yow am sa alal yow sëñ Pape liggéey ko bam leew la ndax daan nga génn asaka ndax daawuloo génn asaka beneen waxtaan la xaj ci mhm. waxtaan bi waaye misaal bi ma ci joxe ñaanuñu ko yàlla bis buñ demee ba yàlla def li ko soob nga bàyyee ko ñeneen ñu ko doon ci alal jooju ñooñu ñoom bañ ko jëlee amuñu soxla ci ñu suñu bi cheikh nama tiyan sirif la woon jàngkatu alquran la woon dañ ko ci war a génneel sarax dañ ko ci war a ñaanal yàlla dañ ci war a tabaxi dañ ci war a tabaxi dañ ci war def lu baax Mhm. waaye dañ koy jël di ko noose ci biir noos koogu lépp loo xam ko ci lu dëppawut ak la yàlla gërëm yàlla dana leen ñoom naam ci def ka ñu def waaye yow mi liggéey alal ci bàyyi ko fi demit yàlla daf la koy isaabe kon mhm. su fekkee ne alali mbooloo mi nga xam ne réew a ko moom soldat si ci lañ dund sécurité bi ci lañ war a dund liggéeykat yi ci lañ leen war a faye baykat yi ci lañu leen war a jox jiwu wuñ ci lañ leen war a wutal matériel bu ñu war a bayee ci lañ war a tabax ay school yu nit ñi jànge yow mennum kenn nit jël ko ne ko dariix kooku koy jërul laajte posen la jox njabootam yàlla nañ ci yàlla mu waaw amin yaa rabbi keneen ki mu ne ndax mu maandu mënul dem ba yàq ndax li nga wax nii Hmm. mu mandu nit mandu ndax mandu gog mënul dem ba yàq ndax da nga wax sank ni euh ko bu fekke dang ko boyal mandu wo di hmm. wax lammiñ bi meuna na indil problème beut meuna indi problème tank meuna indi yenen problème nga nek ci dekk bi ñu jek jek kat ni ah amna na drug dealer bu ñuy set bo wote fi feñal ko jërë sa ngay yor sa tur dinañ la jox neexal hmm. nga nekk ab Cissé Cissé nga dégg loolu rek ku mel ne Mamour Cissé daal yëkkati sa téléphone woote ne hmm. ah dama doon nuyoo kat gis naa sa waay mi nga làqatu bërëb sàngam wante bu ma ci feeñ fan laay hmm. jote sama xaalis mu ne ndax loolu ci jëw bokk wala ndax dangaa dimbali réew mi waaw xam nga su dee li nga tudd la yow waaw ku ma jaar ci tur waaye bu dee ci misaal mi nga joxe lu demee noonu la xam nga loolu da yàq ci seete wuro lo xaar sax la ci jox neexal hmm. ndax li gën ci nit la yàq mooy xelu nit hmm. waaw li nga xam ne day yàq xel nag tax julit bi bi gën sax su ko laalee te wuru koo laal kenn ku ne gis na la ko cay fekk hmm. kon loolu koy xeex ko sax ci jaamu yàlla la bokk wuroo koo wuroo report sax pour ñu la ciy fay alal da nga war report ngir bëgg sa réew waaye da nga war report ngir lo ngir musal jullit yi waaye ngir musal doomi jullit yi xam nga tey loolu lu yaatu la andi nga sa doom fii bi nga koy andi Amérique bokkoon na ci xel yi gënoon ci xel yi am na ci ñoo xam ni sax jàngal nañ leen alquran waxuma ne jeexal kii da mokkal nañ ko waaye wàcc nañ ko biñ ñëwee ñu nekk ay roy dàq <laughs> waaye lu tax ñu mën a dugg ci buntu mbon googu mooy dañoo gis ku leen wan buntu mbon waaye bu fekkoon ne ba ñuy jógee Afrique lañ fa jëlee woon bi ñu noonu lañ fekkaat fi duñ am moyen pour mën a def mbon googu ànd ak ñu bon ñooñu nag ba nga xam ne lii dana ko ci fekk mooy lu koy wàll si mu lor ko képp ku mën a génne sa làmmiñ kay dugal ci loola ba loola bu mu xew loolu kay ci jaamu yàlla bokk sax waaw alhamdulilah camet hmm? oh. loo loo am foofu ci bi waa dafa mel na sëñ Pape Kébé mi ngi yëkkati loxoom sëñ Pape bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. salaam maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp waaye ci nuyo bi du ñu tëb suñu sëriñ suñu wasila si Sidi Ahmed si eh, si Malick di ko ñaanal rek yàlla yokk ku wér ak wér de eh, di nuyu suñu yaay soxna ma jigéen sekk si suñu yaay daara. di nuyu it mboolemu ITFA membre fa bi fi nekk ak ak ñi nga xamante ni bokkuñu ITFA dañu doon ay partisans rek euh, bokk ñu séddoog ñoom panel euh, di nuyu it euh, suñu gan bi yaa Seydi oustaz Youssoufa Diakhaté oustaz man de dafa am lu ma bëggoon laajte li ma bëggoon laajte xam nga Seydina Umar ibnu Abdul Aziz radiyallahu taala anhu man ci lu ma jàngat euh, dafa mel ni que moom euh, ci ci jaamam yi dañu amoon jaama bu ñu fay pour mu posone ko maanaam pour rey ko bi mu ko xamee dafa woolu jaam bi laaj ko ñaata lañ la fay mu wax ko nangam mu jël xaalis mu jël alal boobu dem dugal ko ci euh, bay al léegi may jàng ma bëgg a xam foofu lan la bëgg jàngal lan la bëgg jàngal jullit mu def ko ak lan la bëgg jàng salaamaaleykum wa rahmatullahi aleykum salaam wa rahmatullah sëñ Pape ñu lay jël yoo ak ziar di la gërëm it ci te boobu nga def ak gëstu boobu nga def su fekkee topp nga waxtaan bi muy door a commencé bokk ci li nga dégg mu wax mooy jaar-jaar yu mel noonu moom laa doon moytu pour tudd ko waaye it dara ndax xam-xam la waaye Seydina Omar ibn Abdul Aziz sikk nekkul ci ne dañ ko posé ne sax dundam dund ku gàtt la ndax ñeent fukki at rek la dund liggéey bu rëy bi mu liggéey fukki at rek la dund dund gu gàtt la am te dañ ko posé te xeetam ñoo ko posenu muy bànnu mu yeta te li taxoon ñu posene ko mooy dara warulu ko lu may caaxaan yim leen fekkoon ak noos ku metti gi mu ñëw génn na loolu du fi amati teg ñëpp ci dëgg nit ñi nag bëgg boobu ñu bëggoon a delluwaat ci noos ak dox ci caaxaan yi moo tax ñu fexeel ko fexe mu bon moomu ba posene ko ba la ko yàlla moome posen bi lu wér a wér la mën na am nag wuute na ak history bi ngay wax yow waaye Seydina Omar ibn Abdul Aziz ci posen boobu ci la génn àdduna loolu mooy li ci laaj bu am solo boobu bisimilah waaw bisimilah bisimilah continue bisimilah waa waa kay alhamdulilah rabil alamin kon boog mbokk yi ni ngeen ko xamee yéen a nga ànd ak ñun ci rajo ak Euh, TV bu fa ñu nekk fii ci studio Darou Habibi ci Baltimore seen mbokk Pambay ñu àndandoog suñu mbokk Cheikh Ahmed Tidiane euh, Seck fële ci Rhode Island yàlla dafa ñu tey xéewal ci njàngalu njàngale sëñ Ahmed si mu indil ñu euh, kóllëre indil ñu kilifa sëriñ Youssoufa Diakhaté mu ñuy waxtaan ñun tey ci lu am solo loo xam ne yeneen bi sallallahu alayhi muy wàllu maandu kon boog ubbil nañ leen euh, micro bi ba tey di xaar ci seeni laaj comme ni ñu ko waxoon sànq rek gën ñu gën a mën a euh, leerlu ndaxte sànq sax sàng bi am na benn waay bu ko sànq ni képp ku euh, maandu doo doo jëw li am kuy laaj fii li xew léegi ci jamono maanaam toog dégg benn politicien ku nekk di ci wax kii di ci kii di ci wax kii wax yow nga wax ci tamit euh, li nga xam ne moom loolu nga xam te politicien bi toog fi dafay laaj ndax loolu ci jëw la bokk wala bokk ci wala yow daal da nga war a toog rek bu ñuy wax ci nit te nit ki nekk fi da nga war a noppi rek. xam nga jëw. Hmm? Pape man a xam nga jëw. waaw. sos nit ñi xàmmee wuñ ko. xam nga olof ak sos jëw dafa am sos am. sos am kon bokkuñu bokkuñu képp hmm. koo xam ne nii yaa ngay wax donte na la ngay wax dëgg la hmm. te bu borom teewoon doo ko wax hmm. su fekkee ne ki ngay wax su teewoon sa kanam li ngay wax doo ko wax yaa ngi jëw te alxuraan nee na la ndax kenn ci yéen bëgg na mbokkam dee nga tiim ko di ko lekk ñu ne déedéet mu kon na ngeen bañ jëw jëw ak lekk nit ñoo yem dafa wuuteeg sos sos mooy fekk lu dara saxut dara mhm. amu ci nga ñëw wax lu la neex mhm. soo duggee nag ci politicien ba nga ne politique ndax politique bu njëkk baaxoon na ndax l'islam lii mhm. lay wax ni liñ la history yi lay nett li yëpp politique la mais gis nga ci politique bu bon politique bu bon boo ci gis wax nañ la daanaka xarnu la boo xam ne propagande nañ fa imaam bu toog ci sa minbar xas Seydina Alioune saaba bu baax boobu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yore woon doomi yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jur njabootu yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax njabootam ñooy doomi yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam politique boobu tax na Xasan gis nga ni mujje jabaram lañ fay mu posé na ko buggu dugg ci yooyu te mm-hmm. istri bi ñuy nettali ci taarix bi ñuy nettali ci xeet yi ñuy nettali ñoom ñoo def loolu mm-hmm. comme bi ñu reye Omar Abdul Aziz boobu ñu la nettali gis nga Seydina Ousseynou fi mu mujje ba tax Karbala jóg loolu lépp mm-hmm. politique bu bon la et Seydina Omar ibn Abdul Aziz bii nga xam ne wax naa la digganteem ak Seydina Aliyun karamallahu wajhu juróom ñaari amir jaar nañ fa amir bu ci nekk wax naa la ñaata at la fa def Mm-hmm. bam ñew mom tok ñaari at yi tok ak juroomi weer ak fukki fan ak ñent politique bi def ba ñepp am jam ñepp womal mand delusi ci kenn déggatul ko xass Seydina ali kenn déggatul ko xass jabootu Seydina ali waaye politique bobu kay politique bu rafet la mm-hmm. kon nekkul ci bax ak bon dafa melne ne matériel matériel daal la nga cey def moy bax wala moy bon nit man na politique am ci yalla am ci mhm. payu nit man na politique am ci dumay yàlla mhm. waaw yeneen bi alayhi wasallam nak ci wax mom daf ñu noppal man kan yuminu billahi wa yawmil akhir fal yaqul khayran mhm. aw li mom moom la yeneen bi alayhi wasallam wax léegi nak yoy atel sa bop manam manam tekki wi kep ko xamni gem nga yalla man kan yuminu billahi kep ku nek di gem yalla gëm ne bis penc dana am taxawaay bu yàgg boobu nga xam ne doo dégg sax yàq ku foq ah yàq yàq ku foq taxaw man kaana yuminu billahi wal yawmil axir mu ne fal yàqul waay waay booy wax na nga wax lu baax lu rafet soo ko munut aw li smit noppil mu jeex julli dafa warut am liberté ci boppam jullit dafa war a tënk boppam xam nga yahud kaw kaw ba bi mu ñëwee ci yeneen bi sallallahu alayhi ko dama bëgg nga wax ma lan mooy lislaam mu julli juróom woor ginnaaw boo tuddee baatu seede yi nga julli julli juróom nga woor weeru koor nga génne asaka nga am xaalis nga dem màkka mooy juróomi ponk lislaam yi lii nga wax ma la bëgg a xamal duma ci wàññi dara dara dara dara dara waaye duma ci yokki lu toll ni tarfatal ay ni wane ginnaaw yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne kii di dem su fekkee li mu wax nii mu la ko waxee noonu la ko defee àjjana ñeel bul fàtt ni moom moo ci beneen addis ne nit te xadisul xutsi la nit ki du dañ ci ay naafi la ak di def lu baax ba jege boroomam bu jege boroomam lu koy jural su waxee boroom ma wax su xoolee boroom ma xool su doxee boroom ma dox su déggee boroom ma dégg لول وخوكو تي فرات تي نافله لاكو واخ موتاخ ستم بو باخ يال نانكو يالا فايال موي شيخ محمد مو اندل ني خيوال يوري اندل لول لب تي نافله بوك كين تي جوري نامي موي سيد الحاج مالك رضي الله عنه ñu ne ci niñ ko yuñ julli fajar ba pare mu génn ci jàkkaam hmm. xool ñaar ñu nekk ngi taxaw mu ne lii danaa ko génne duma ci boole wax buñ fajar rek nañ lal malaanu wasifa bi naasirul xaqi bil xaqi jóg soo fa jógee kii dem tool dem tool kii dem bitik dem ci bitikam kii dem ci office am dem ci office am nit ki du am jotuk toog ci taxaw di jëw hmm. gis nga nit ñu yore woon hmm. nga julli tiris ba pare sànni malaanu wasifa mi diggante mhm. wasifa ak timis ak gee waxtu li da fay am jot bu nekkul ci wasifa man fa wax lu mu wërta wax man fa def lu mu wërta def booleeg laasim suba lasim ngoon ak yeneen nag yi ñee ca tegal yëpp ci ka ko kon kooku amul tayam pour jëw mhm. kon politique sen bi xam nga da may dugal ci beneen domaine domaine bi ma dugal mooy léeg-léeg nga dégg ku na lekk alal yu tubaab du problème <laughs> ndax gëmuñu ah da nga koy dégg ñu koy wax gëmuñu yàlla xamul loo ne tooñ jullit moo gën tooñ yéefar tooñ jullit moo gën tooñ moo gën a oy fuuf tooñ yéefar hmm. waaw xam nga li tax waaw dafa amul yiw te xam nga ne suñ demee ba fële waaw bañ yi Mhm. kenn ku nekk la nga am ca lu baax suñ paree dañuy seet li nga seqal nit ki nga ameel bor fayuloo ko ki nga nekk cib deram ki nga nekk ki nga nekk ki nga nekk ñi nga tooñoon te mënuluñ la dara nga ne yow da nga am carton da nga am doole ba agsi ci jooj min bu mag bi nag tey yaa ngi ci jooj bu mag bi la muy njëkk a def mooy kenn ku nekk muy jël ci lu baax di la ko tooñ di ko defal yéefar bi nga xam ne amul dara lu baax nga tooñ ko nag soo àggee suñ lay jël di la ko def lu bonoon la ñuy jël di la ko jox subhanallah sew sew boobu ma nga fa. loolu càggante la. waaw kon nag. Mhm. Hmm, politique seeno kenee na ci yem daal bañ a daal a gën nit ki daal li ngay wax soo ko ñemee na nga jàkkaarloog moom soo ko ñemut bàyyil ba gis ko wax ko ko. kon yàlla na yàlla suñu borom dimbali. amiin. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Euh, sëñ Pape maa ngi di nuyu ah di nuyu aussi euh, Serigne Youssoufa waxtaan bi am na solo trop ñu ngi siy jàng lu bëri waaye mm-hmm. rek euh, di jël nuyoo bi di si jiital suñu sëriñ suñu wasila sëriñ Sidi Ahmed mu tegal ñu ko si loxo soxna ma jigéen mu jàll leen ñu ko si panel bi yëpp mm-hmm. man nag dama des fois damay xaw a damay xaw a sama xel dafay xaw a jaxasoo parce que Serigne Youssoufa suñu xoolee tey li xew si àdduna ak li fi mag ñu baax ñi bàyyi lépp lépp dafa mel ni léegi nit kenn toppatul sax li fi mag ñi bàyyi parce que da ngay gis tey dañuy dellu rek si suñu société en général da ngay gis loo xam ni lu doy waar la par exemple mun naa dellu sax si politiciens yi rek par exemple wala benn événement boo xam ni am na mais da ngay bëgg nit ki ba doo bëgg kenn wax ko dara bam la jaral nga wax si loo xam ni yow dara wóoru la ci wa <laughs> wa léegi man limay laccé moy ba tax ni nit ñi léegi duñu ñëmé sax wax dëgg parce que dañuy ragal suñu waxé dëgg bi ñu ñu ñu xass xas leen wala ñu ñu ñu toroxal leen wala ak lu mu munti nekk dal legi tamit ba tax daf leen di jaral ñu ñu ñu mandu mais bu fekkee tam ñëpp dañu mandu naka la société di doxé hmm, Alhamdulillah, soxna xadi maa ngi delo la delloo nuyu jërëjëf. di nuyuwaale sax soxna maa jigéen waroon naa ko nuyu bu yàgg yàgg kon fàttali nga ma. waaye yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu noppal. daf ne képp koo xam ne nii gis na ci yow lu ko naqari. na nga ko jéem a faj soo ko mënee faj. soo ko mënta faj. ci kattan na nga wax. soo munta wax nanga ko sip bañ ko ci sa xol xam nga faj buur a ko moom buur moo mën a sañ ne lii du fi xewe loola du fa xew wax mooy boroom xam-xam yi ak kilifa yi nga xam ne ñi ngi leen di déggal ca bañ leen di déggal yaa ngi wax politique seen yi waaye ñiy wax léegi ci sëriñ si lañ gën a bon liñ ñemee wax ci sëriñ si yàq ko sëriñ siñ la ñoom lañ yaakaar politique seen sax ñëwuloo ko wax ne boo ko waxee mu yóbbu la ci kaso bi ndax daf koy toppante ak yow kon boo fekkee ne da nga mel ni yusufa jaxate bañ ci sa xol nga tollool sa dara ji foofu la toll da ngay xam li nga xam noppi bañ ko ci sa xol maandu ki nga xam nag ne comme sëriñ ahmed su ñu juróom fukki st ñaar yëpp nañ daje ñëpp ñëw daje ci ña koy déglu di topp la muy wax mu ne leen mooy dëgg nekk leen ci lii yéen ña ko déggal nekk ci loolu ña nga xam na ne am kaso am fay di fayloo nit alamaan te leen a teg alamaan ñooy ñoo am sañ-sañ ki nekk def lu ko neex ci tooñ nit ñi da nga xam ne kenn ku ne da nga war a dund ci jàmm kenn ku ne da nga war a dund ci sécurité ne noos ki yàq dugal ko fa mu war a dugg teg ko alamaan bañ ko war a teg ba mu mën a dellu siwaat bokkaat ci seeti bi may comité bi jàmm communauté leen jàmm ñëpp mën a dund ci jàmm loolu buur mooy ki ko man waaye kudut loolu la loo def rek da nga bokk ci ñoo xam ne ni mën nañ leen a joxar bi ndax dëgg-dëgg su fekkee ne yaa ngi seet li xew ci jamono ta ah noppi moo lay gënal wax fuuf nag ndax da ngay gis koo xam ne nii mi ngay tooñ koo xam ne wóor na ko ne ki muy tooñ moo man baayam te du moroomu maamam waaye làqu na ci internet wax lu ko neex yàq yàq ba pare wut kum yàqaale te loolu lépp dafay delluwaat ci par parloo par parloo daal baaxut yàlla nañ ci yàlla musal mas dama dégg ci sëriñ Abdul Aziz Al Amin yàlla na yàlla yokku leeram muy joxe exemple ci kër Seydil Hadji Malick radiyallahu ta'ala mu ne kër Seydil Hadji Malick nekkuloo fi pour ànd ak ku neex ngeen def lu leen neex wala da ngay ànd ak xagn ko booleel ngeen def lañ la sant bi mako deg ci sama nopp dëkk la mom Sëriñ Abdul Aziz diko wax ci jamono lolou nak ba léegi moy li moy li wara nek fep la la wax so keneen ku tënkuwut ci loolu nag day def lu la neex kii def lu ko neex nag kenn mënu ko dara. du dul ma la bu rëy ci man dara. jërëjëf jërëjëf. Mhm. son xarit laaj ba am solo bi Chame Tidiane ndax amaat nga keneen ci caatum bi. daf mel ne sëñ Assane ngi ci line bi daf mel ne mi ngi bëgg jël gi sëñ waaw daf mel ni sëñ Assane moom kiiwul mi ngi mel na ngi ubbi maayikam wante daf mel na kiiwul sëñ Pape sànq euh, Cheikh Ahmed Tidiane ci bi ñu tàmbali euh, euh, programme bi dëgg la yaa ngi wax ci wàllu wàllu daara ji naan bi daaraam am na yoo xam ni ci la koy lal bi jàngale téere yàlla suñu téere suñu borom subhaanahu wa taala yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mhm. ndax foofu ku bëgg a ci daara ji am nga yoon boo mën a jaar fan nga jaar boo mën a dugg ci daara ji waaw ah, euh, wax noonu la rek daara ji euh, ñi nga xam ni wax dëgg yàlla euh, ñoo ngi ànd bi di ko di pour Euh, jàng bi mën a jëm kanam incha allahu euh, mhm. ak nañ organiser ak yooyu yëpp euh, ku bëgg a dugg si daara ji nag am na ñi nga xam ne ñoom nga mën a jokkool mhm. ci mel na soxna Ndeye Ami Sarr moom téléphone am mi ngi nekk quatre cent un deux cent soixante et un vingt sept zéro un mhm. wala soxna maam Adama Gueye téléphone am nekk quatre cent un six cent quatre vingt huit cinquante six dix sept wala sëñ Cheikh Diallo téléphone am nekk 267 688 98 80 wala sëriñ Djibril Thiaw téléphone am nekk 614 301 40 82 wala soxna Adja Ndorin Gueye wala soxna Jewo Ba wala képp nga xam ne rek xam ngeen ko te mu nekk ci daara ji wala mu nekk si xadara yi nga xam ne foofu ngeen nekk bu muy président xadara yi booyeen jokkoog ñoom tamit ñu jotal leen euh, ñi nga xam ne ñoom lañ jot wax seen téléphone wala boog daañ leen teg ci yoon yi nga xam ni euh, incha allahu si jokkoo ak ñoom rek daañ mën a dugg si daara ji euh, mm-hmm. sëñ Pape xam nga foofu dafa mel na mooy wàlla ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci Amérique waaw ñi nga xam ne ci ci ci wàllaa dex wala ci wàllaa géej gi comme ni ko sama mbokk lébu yi waxee mu ñi nga xam ñoo ngi Europe wala euh, Europe daal nekk ay France ak Italie ak yooyu ñoom tamit ñoo ngi ci daara ji. Euh, ñi nga xam ngi foofu tamit bëgg a dugg si daara ji incha allahu. bu ñu jokk ak euh, soxna Roqaya Cissé moom ma nga France. moom tamit dañ leen mën a jàppale ba ñu dugg ci daara ji incha allah moom téléphone am mi ngi nekk 337 665 54 741 moom nag mi ngi France. Euh, wala ñi nga xam ne ñoo ngi Sénégal parce que wax yàlla am na ñi xam ne ñoo ngi Sénégal te bokk si daara ji ñoo ngi dugg ci samedi bi euh, ak si euh, dimanche bi sax ci ëpp ak wala si talaata bi. waaw ñoom ku ci bëgg a dugg nga jokkoo soxna Umu Xayri Diallo moom téléphone am nekk deux cent vingt et un soixante dix six cent cinquante et un trente huit quarante neuf ñooñu ñi nga xam ne daal comme ni ma ko waxee rek wala ku jokkoo si seen Oustaz Assane Thiandoum Euh, wala mu woo la yow sëñ Pape euh, ñoom ñëpp kuñ si woo rek incha allah wala sëñ Pape Ndiaye Guèye ñoom ñëpp daal kuñ si woo rek incha allah daañu leen mën a teg ci yoon yi nga xam ne daañu mën a àgg si si si jàng bi euh, sëñ Pape xam nga sànq tamit am na question bi nga xam laajoo nga ko. par exemple ñi nga xam ni ñoo ngi bëgg a dugg si daara ji wala dugg nañ si ba pare wala tey jii ñëw nañu si classe su Sunday bi wala classe su Tuesday bi wala classe talaata bi ba pare. ñu daal di jàngale bi daal di leen rëcc foofu mën nañu dugg sax si euh, parce que ITFA am na YouTube channel fi nga xam ne hmm. tamit mën nañ fa dugg euh, bu ko defee bu ñu fa duggee daañu mën a euh, delluwaat ci ci waxtaan yi nga xam ne ci waxtaanu alxames yi wala si waxtaanu àjjuma yi wala si jàngale bi tamit ñu daal di fa jugu daal di mën a dabaatal si yi nga xam ne ñoom mooy gi passé ci YouTube am ni aussi Facebook bi comme émission bi fi mu nekk ni mi ngi dem live si YouTube bi tamit daañu mën a euh, dem foofu ñu mën a fa jotaat jàngale bi euh, ITFA fa institute nag mooy fi nga xam ne fa la ñuy dugal programme jàngale yi nga xam ne képp nga xam ne ngi bëgg dar dabaatal fa wala bëgg réviser euh, tamit boo demee foofu incha allahu di nga fa mën a am li nga xam ne moom ngay soxla pour mën a réviser pour jàngat yenn jàng yi incha allahu taala jërëjëf sëñ Pape fekkee ni tontu naa ci sa laaj yëpp daal dafa mel na loolu laa ci bëggoon dolli incha allah ah alhamdulilah dafa mel ni kon njàng mi yaatu na ba nga xam ni ITFA donte Amérique gi la juddoo mi ngi jàngale di jàngale ba ci Europe di jàngale ba Sénégal tamit am chaîne boo xam ni fu waay nekk ci àdduna mën na ko seetaan am aussi foo xam ni denc na fa li nga xam ne moo fa jot jaar yëpp boo demee ci archive yi ci YouTube wala ci Facebook da nga mën a gis at yi passé yëpp li nga xam ni sëriñ bi jàngale na ko fi saaru alxuraan yi nga xam ne yëpp jàngale na ko fi ba pare firi ko ak tajwid bi muy jàngale yëpp duñ ko mën a gis foofu kon. incha allah loolu dëgg la Pape ni nga wax noonu rek la quoi yooyu yëpp bu soobee yàlla. Mm-hmm. ku dellu ci euh, euh, programme yooyu rek duggaat ci institut si ITFA institut bi ak wala si YouTube bi euh, bu ko defee di nga mën a jotaat yooyu yëpp léegi bu ko defee nag ñuy ñaan nit ñi nag ñuy subscribe si si ci mm-hmm. YouTube channel bi. ak si ITFA institute bu ko defee ñoom jamono bu ñu dal rek loolu dañ leen dañ leen dañ leen ko indiqué bu ko defee ñu xam ne am na lu bees lu ñu posté ñu mën a euh, dem daal di xoolaat loolu euh, pour mën ci euh, jële jàngat yi nga xam ne daal moom lañ ci fas yéene jële incha allah. mais mais Cheikh loolu li mm. mu yaatoo noonu loolu kon xaalis lay laaj kon boog mbokk yi ku ci bëgg barkelu barkeelu nga xam ni li nga yoree as tuut ci. daar fu ñuy jàngale alquran wala fu ñuy jàngale euh, mbindu Cheikh Ahmed Tijani wala mbindu euh, ñi nga xamante ni ñi ñoo nekk ay léet naam ci Sénégal euh, it fa ubbil na la yoon pour nga mën a ci loolu ndax daara bi am na zel wala am na cachet boo xam ni ku ci nekk mun nga toog sa kër yónnee foofu sa participation ci daar bi waaw dëgg la eh. sëñ Pape li nga wax wax nga waxu am solo parce que ma hmm? naa am na li nga xam ne sax laajoo ko mais mën naa ci tontu dafa mel ni eh, ñëpp ñi nga xam ni ñoo ngi jàngale rek moo xam sa internet bi la ak fu mën a doon da ngay da ngay joxe ay inscription da ngay fay moo xam nga fay ci ngay doogay dugg moo xam ngay fay par weer moo xam nuñ ko mën a tuddee rek loolu da koy def eh, film yàlla def na ni soob yàlla amul amul amul fay dafa mel na la ko defee te gis nga sëñ si boppam mooy ñëw euh, am nga jàngale bi tamit dafa am yenn liggéey yu bare yu muy laaj te mm-hmm. non seulement jàngale bi mais jàngale bi da lay jàngal ba pare jox la devoir ba pare nga delloo ko ko mu corriger la ko delloo la ko bu ko defee mm-hmm. yooyu yëpp xam nga euh, euh, temps bu bare la ak liggéey bu am solo ñuy def bu ko defee nag pour dellu siwaat si laaj ba nga doon laaj léegi waaw nga xam ni bëgg nañu barkeelu si si jàng bi euh, wala ci boog ci liggéeyu ITFA en général. parce que noonu ci matériel bi ñu war a jënd ak yooyu daal pour jàngale bi. ci liggéey waaw liggéey bi nga xam ñoo ngi koy def nii moo xam ci alxames bi la wala ci ajjuma bi wala yu mu ci mën a doon tamit ku nga xam daal bëgg nga ci bëgg nga ci am ci tuyaaba yi parce que lii yëpp euh, ñëw leen am ay yiw ñëw leen wut ay xasanaat loolu rek la quoi bu ko defee foofu tamit euh, nit ñi mën nañu participer ci loolu financièrement daal di ñëw dugal li nga xam ne moom la ñuy barkeeloo. daal di dugal parce que ITFA am na euh, zell bi nga xam ne tijji nañ am nañ ko boobu ba léegi yàgg na ci wax dëgg yàlla euh, mu nekk Tijania Foundation at gmail dot com euh, wala boo fekkee ni da nga bëgg def cash app also mm-hmm. hashtag ITFA la wala téléphone bi nekk deux cent deux sept cent soixante trois cinquante deux cinquante trois donc bu ko defee yooyu yëpp nekk yi nga xam ni nit ñi mën nañ ci barkeeloo jamono ju nekk nag Eh, jamono joo toogee rek nga ne ah tey wax dëgg yàlla def naa wala boog nga sas sa bopp nga ne man daal àjjuma bu nekk wala weer bu nekk dinaa barkeelu ci ci liggéeyu ITFA bi nga xam ni nga koy def eh, daal di fa def li nga xam ne mooy sa eh, barkeelu mu dugg foofu rek incha bu ko defee yàlla nag mooy fay parce que li ñuy def yëpp yàlla tax ñu koy def bu ko defee yàlla mooy fay yàlla na yàlla nangul ñu nangul ñu suñuy jëf nangul ñu suñuy ñaan et puis barkeel lépp li nga xam ne ñoo ngi ànd ak sëriñ bi ñun ñëpp bokk di ko di ci di ci barkeelu daal macha allah. alhamdulilah rabil alamin yal nañu yàlla gën a jàppale gën a jàppale ITFA ndaxte ITFA bu dëgër mooy tarixa bi def dina gën a dëgër ci Amérique tarixa bi gën a dëgër ci Amérique mooy jikko yu baax jikko tedd ngay dina gën a dëgër ci Amérique maandu ci dina gën a dëgër ci Amérique kon boog euh, sëñ Youssoufa defe naa ni li ñu amoon ci waxtu dafa mel ni ten minutes moo ci des dañuy dellu si yow rek jox la nga joxe si sa kàddu yu mujj bu fekkee Cheikh Ahmed Tidiane amul ku nekk ci cadrum bi ku bëgg a poser question su amul ñu delloo kàddu gi sëñ Youssoufa mu defaat euh, résumé am ñu mën a tëj kon. waaw incha allah xam naa ni dafa mel na euh, euh, ñu nekkoon ci line bi yëpp afin ñu doon yëkkati seen loxo kenn yëkkatiwul loxoom donc bu ko defee rek fekkee amul kenn ku bëgg dugg léegi rek comme ni nga ko tamit. ko defee ñu bàyyi la cadeau nga delloo ko sëñ yusuf mu daal di indi ay cadeau yu mujj waaw jërëjëf sëñ yusuf ko ñu delloo le ñu delloo le cadeau gi nga nga tej nga joxe sa kii yu mujj bindu bu mujj bi alhamdullah sëriñ pap Seyd Cheikh Ahmed tidiani ñun ñëpp ñu bokk rek santat yalla ñi nga xamne ne ñu ñu commencé waxtaan bi bismillahi rahmani rahim war ko jeexale tey alhamdulillahi rabbil alamin ñu ñaan yàlla ndaje bi yàlla bu ko yàlla def suñu mujum daje ya ya ñu ñaan yàlla wax ji yàlla na am njariñ ya ndax toujours dinaay faral di wax ne yenent bi salallahu alayhi wa sallam lim fii nekk Ken gisu ko mu teg àlluwa teg ko ci benn tànk naan ko waxal basil mar wala waxal bismillahi rahman rahim lam dan wax yépp ci mbooloo la koy wax kenn ku nekk dégg takk dem jëfe loolu nga dégg tey borom xam-xam yu mag ngay dégg yépp ci jamonoom nga xam ba ci jamono sidina ababakar sadiq alquran fi ak li ci xew yépp taarix li ko waaye tey am na ñum féete la loon firi gent am ñum féete la loon bind addis ñoom rek am droit bu addis ñu ñu bind ko dem demet te loolu lépp toog ak moom ci yi la gis nga moo tax suñ mag ñu baax ñi yàlla na yàlla fayal ju leen wax nañ ne daaira ki ci gën a siiw ne moo ko gën a taxawal mooy Serigne Babacar Sy donte ne ci jamono yi Seydil Hadji Malick am nañu taxawoon na maay seen càmmiñ ci li ngeen taxawal yëkkati dërëmu nguur di jox leen mm-hmm. loolu taarix bu sori la boo xam ne ni duñ ci dugg mm-hmm. waaye loolu lépp lañ ci jublu woon mooy daaira yi ñuy taxawal mag ñi nga xam ne jël àlluwa teg ko ci seen kaw tànk yi paase na wax leen addis yi paase na suñ toogee waxtaan ak ñoom ci xam-xam loo xam ne dana leen jariñ seen diine ñu jàpp ko takk ko jëfe ko ba kenn ku ci jëf rek nga xam ne boroom xam-xam a jëf muy boroom xam-xam boo xam ne ni toogul ci benn daara waaye la ko may mooy toog nag boroom xam-xam kooka wax xam-xam mu dégg ko dem jëfi jëf mhm. dafa mel na suma déggee seen jëngatu bi bu baax sëriñ ahmed si ci loolu la taxaw yàlla na yàlla jàppale ko ya liggéey bu metti la nag mhm. ndax dafay delluwaat ci ñàkk maam mhm. lu tax loolu mooy dañu toll ci jamono boo xam ne lu nit di yëgatu rek ñu fekk la ca tuumaal la ci képp kuy bañ tuuma fi mu ne doo liggéey dara ci yàlla te fekk na nit ki nga xamal benn liif mënu la koo fay ci àdduna li ci biir yenent bi sallallahu alayhi sallam daf ñu xamal ne doomi julit bi waxtu wuñ jëlee àlluwa tekk tànkam bi na ko waxal bismillahi rahmani rahim wala waxal alif lam ra wala waxal alif lam mim mu ne yaayam dana ci texe baayam dana ci texe sëriñ bi koy jàngal dana ci texe te yenent bi ne alif laam miim araf la dama alif araf la laam araf la miim araf la te mel mu ne benn araf bu ci nekk yàlla dina la ci bindal fukki yiw mu te benn yiw bu ci nekk moo ëpp asamaan ak suuf kon njariñul alquran kenn mënu la wax ni ni yàlla gën a lépp noonu la alquran gën lépp ndax alquran moy waxi yàlla hmm. kon ki gën ci nit ñi mooy ki nga xam ne dafa jàng alquran ba pare wàññi ko di ko jàngale kon alhamdulilah sëriñ Ahmed ak képp ku mu bokkal position boobu waaye ak képp ci jàppale di def lu mel noonu yàlla na kemmam bari fii Amérique waaye ci àdduna bi ba nga xam ne doomi julit yi duñ fi jóge mukk yàqu ndax fi mu ne ku tiitulit da nga xel rek waaye tiit jot na suñ xele yi ñi ngi leen di dugal ci lu ne ci lu ñaaw da ngay gis ku bokk ci famille bu baax ay mbokkam sonni ci moom bay bëgg a dee mu ñëw wax nañ ko ci biir waxtaan wi léegi dañu yàqu-yàqu góor ñu soppi ay góor jigéen jigen ñu soppi leen la ca des la may bañ a tudd loolu lépp suñ amul ay général yu taxaw fas yéene liggéey ci lislaam mooy li wolof ti lépp ne golo bay babu dunde hmm. ndax mooy da nga sonn ci sa njaboot bay bëgg a dee daj ci lu ne bay bëgg a dee ñëw dugal leen fi ay saay saay bàyyi ko ci bitti ñëw jël seen xel doomu aadama xel la am Mhm. suñ xasee jël xel lépp luñ ci dugal rek loolay sax kon na ñëpp jàppale ko ci daara ji kenn ku ci nekk langa cemman nang ko ci def ba ñëpp xam ne def nañ ko ci ndax ëllëg lii ñuy yëngu yàlla na yéex waaye bis buñ fi jógee am ñu ko mën a continuer te continuer mbirit dafa baax mu tegu ci xam-xam xam-xam mooy lépp te jàng yàggut ñàkk jàng moo yàgg te dof mën nga ko soppi nit ci jàngal ko waaye nit lu nite mën nga ko soppi dof ci ñàkk jàng kon pusu sonu njàng mi moom war na bokk ci li nga xam ne ñëpp dañ ci def seen itte ginnaaw nag moom alhamdulillah xam na cëram mu futteeku ñëw jàpp ci ba lii di dox dëgg dëgg kenn ku nekk na nga gis ne sa bos la nga def ca la nga ca man yépp kon ñu ngi beesalaat nuyoo ci moom di ko siyaar bu baax a baax a baax di siyaar mboolem koo mi ngi dégg suñu kàddu di wax ne wax ci lépp lu ci jub ci yàlla la lépp lu ci dëng ci man la ndax doomu aadama la def lu rafet wax lu rafet wax lu bax moñu taxona jokk don jóg doon ñun miinuñu programme diko defé ni nii sax miinuñu ko yalla xam ko uhuh. rek ñu feñal suñu yene tayit mom nit ku bax la man xam naa ko nit ku baxa baxa bax la baax wu mako ci ne moy doom yi jaynaba kamara ak habib wu mako ci lolu man ko xamee ci ne julit la haqqan borom jikko ju rafet la taalu cheikh mamad tidian tidiane sërif la ku wo nit ñi ne leen ci jàmm la ku wo nit ñi ci benn leen ci lislaam la ku wo tidian yi ci benn leen ci tariqa tidian la par parloowut féetewut wa ma saxit illa bima alimna amul kenn ci kaw suuf nag ku ñu jaral fen duñ politikal benn nit waaye li ñu xam danañ ko wax 2007 ba léegi maa ngi ñëw Amérique te gis taxawaayam bokk ak moom ay jotaay yu wuute mm-hmm. la ma xamoon ci la ma waxoon two thousand seven moom ci twenty one bi loolu laa dégg rek muy wax ci yaatal ak kon nag nit ñi nañ jàppalante comme niñ ko alquran waxe dimbalante leen ci lu baax waaye bu leen dimbalante ci bañeel ak noono soxna xadi bi dugg léegi li mu wax mooy dëgg nit ñi léegi ñuy dimbalante mooy ci bañal ak noono yaa nekk ci dëgg ak nekkuloo ci dëgg yëpp fale wuñ loolu yaa ma neex yow laa àndal loolu lañ faale hmm. waaye dëgg rek mooy dëgg hmm. te lu dëgg nag bis dana ñëw ñu rëcc ko kon maa ngi leen di ziar Serigne Cheikh Tidiane nga àndal lool ci programme macha allah Serigne Pape yow mi nga xam ne yaa amee woon kàddu yi Seydi Assane Diambum Serigne Abdou Mbow waaye maa ngi dellu siwaat sama xarit sama wolore ajaratu Binta Ñang nit ku ma jege la ku bax ci man la ku am ci man ñariñ la yalla na yalla dimbali ko yalla na yalla barkel bi sallallahu alaihi wasallam ma ngi sétal serigne ahmed ci wallahi nit ku ko bëgg ngi nonu te ma ci xam dar dem na ba kërëm ci gambi tok ci biir néegam ci waxtaan ak mom ci salam muy wax ci serigne ahmed serigne ahmed nek ci amerique te du dégg la muy wax kon lam wax ci mom dëgg la nit ki bu waxé lu bax def lu bax dang koy nit bu baax la maa ngi nuyuwaat sama soxna comme ni ma ko waxe woon bi may ubbi muy aji yaamu tut fay ndax it li arab way ne képp góor bu nekk jàmbaar jigéen bu nekk jàmbaar dafa nekk ci ginnaawam waaye maa ngi mboolem kuy jigéen ci ifta euh, ndax wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu ci bari xam naa leen ay nit ñu baax lañ ay nit ñu yiw lañ dëgg-dëgg kontaan naa ci ànd bi ma àndoon ak yéen maa ngi ñaan yàlla yàlla na jur njariñ yàlla na yàlla jégg ñu bàkkaar li nga xam xew ci jamono ba dajé munta am gisante munta am yalla mi ko fi mën génné yalla la nako fi yalla génné wacc ñu asaman su lèr yiwu reuy nit ñi delluwaat di dajawaat di tok di waxtaanaat ñi gamu gamu ñi conférence conférence ñi ngent ngent ñi ciet ciet lool lepp ci loxol yalla nek yalla ko man yalla nañ ko yalla defal ya yalla na yàlla na yàlla gën leen a jàppale gën leen a dimbali bi jaahi seydina mu jor sallallahu alayhi wasallam maa ngi sama bopp di ñaanal bépp julit mooy képp koo xam ne teg nga ci yoon wu yàlla gërëmut yàlla na yàlla wël bi la teg la ci yoon wu yàlla gërëm amiin koo xam ne nii sa njaboot yàlla boo ci gis lu la naqari la nga bëgg ci na ko defal ni ko bëggee maa ngi gërëm maa ngi sant wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ bi yow ñoo ngi lay gërëm euh, di la sant bisu àjjuma xam nañu bis bu xat ci jullit yi bis bu xat la ci yéen kilifa yi nekk ci tarixi Seex Seexna Ahmed Tijaani Chérif wante law yaa ngi jël sa temps jox ko mbokki taalibe yi pour bëgg rek yiw ak mbaax gën a tas ci Amérique gën a tas ci àdduna bi yàlla na yàlla yokk xam-xam bi yokk sa wër dëgëral taxawaay bi yàggal euh, ànd bi comme ni nga koy defee rafet na lool ndaxte nit ku baax rek moom mooy xam yiw di seede yiw ci beneen mboroomu kilifaam yàlla yàlla gën a dëgëral sa taxawaay kon mbokk mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñoo ngi sant yàlla suñu borom subhanahu taala moom mi ñu may ñu tàmbali woon ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ci alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi leen di dox kon dox daje ajjuma bii di ñëw incha allahu taala ci beneen gudd ajjuma fa subhaana lazi biyadihi malakutu kulli cheyin وإليه ترجعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله jërë ngeen jëf ci taamu ak tànn bi ngeen tànn rajo ITFA rajo ITFA ànd ak yéen ci programme yi yees yu am solo moo xam ci wàllu diine la moo xam ci wàllu actualité la ak lépp luy soxal dundu doomu aadama Radio ITFA Anda ak yéen luy askanu Gambia wala mu soxal askanu Senegal, te nek ci bir amerique ak liko wër di ngeen ànd ak ITFA ci programme yu am solo Radio ITFA di radio askan wi leram ya jollina fo xol fo fa bawan radio ITFA dal, dama ni jappal ma bi Radio bul ko ti ba mukk radio ITFA radio askan wi شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب وانقل صلي على محمد